Adike Sall ak tuutànk yi waaye di nuyu baax soxna Yaama Kan kuy bàyyi xel émission bi la soxna Seyna ba Toob ñoom ñëpp ñoo ngi leen di bëri nañu dina siyaara soxna Leena salaamaaleykum Euh, mu mel ni euh, rëccaat na. ba mhm. tey mën ngeen a woy di jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ko defee rek incha allah ñu ànd ak yéen seen émission jotaayu xam-xam mi nga xamante ni yaa ngi déglu te bëgg mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 bu ko defee rek incha allah euh, Seydina dina la seetal yow mi nga xam ne nga bëgg ku la seetal wala nga bëgg ku la firil sa génn ku la xoolal sa rawaan. wala sa sarax wala yeneen ak yeneen muslaay yoo xamante ni itam bëgg nga ko wala yeneen bërëb yoo xamante ni yaa ngi bëgg ko la ci seetal wala a tukki ba xam tukki bi dina baax xam déet yooyu yëpp boo wootee euh, ni macha allah ba pare nag euh, jox la ay muslaay yoo xamante ni mën nga koy utiliser saa su nekk ay léemaay kon mën ngeen a woy di jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah euh, seen émission jotaayu xam-xam la ñu ànd ceeg Seydina Ousmane Sourang di borom xam-xam di jox xam-xam ba nga mën koo jëfandikoo te du la gaañ kon Seydina euh, nga daal di continuer ci point boobu rek ni tuuti rek incha allah ñu commencé door li nga xamante moo di sunu ay question mm-hmm. ma macha allah jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal ci leer gi 88 628 19 05 628 19 05 nit ñi dangay dem ba euh, nii nga xamee nii bu ñu joxal sa tur nga mën leen ci xoolal man leen wax sarax yi gën ci ñoom mën nga ci dem itam ba xam yan xeeti Euh, càngat moo gën ci ñoom waaye itam du ci yem sunguf yi nga xam ne ne war nañ ko jëfandikoo ak sunguf yi nga xam ne ne waruñu ko jëfandikoo kem lu jëm ci wàllam sarax yi sarax yi nga xam ne ñoo gën ci ñoom ak sarax yi nga xam ne ne gënu ci ñoom ak nit ki tam tey bu amoon ay jafe-jafe si ay jafe euh, nga mën a jël turam ak turu xam nga euh, boo gisee lu ci bëri ñaari nit ñi duñ nangu joxe seen tur ci antenne bi wala seen tur jigéen léeg-léeg ku ne mën na leen a bàyyi xel waaye am na si yoon yoo xam ne tey nit ki bu fekkoon ne dafa am ay jafe mu daal di woote ñi may joxe turam ak turu yaayam su boobaa mën nga koo xoolal am yeneen sarax yoo xam ne da nga koy génn génnaloo ngir jafe-jafe yi nga xam ne mooy mooy mooy mën di am kon loolu lépp Baol Médias yoo koy bàyyi xel ci 88 628 19 05 léegi-léegi bu fekkee ne yow da nga ragal da nga nekk boromu tur wala bëggoo sa turu waajur jigéen di jàll ci kaw soo woote ne ma jël ma orantine su boobaa Sëñ Fallou dana jël orantine la sa turu bu jigéen ak sa tur bind ko su ko defee ñu mën laa xoolal leeralal la ba pare tam wax la sarax yi nga xam ne ni boo ko defee yàlla sa borom subhanahu wa taala mën naa ubbi bunt yi te duñ tudd suturu ndax suturu itam dafa baax yàlla sa borom subhanahu wa taala day wax ne képp ko xam ne nii suturaal nga nit ki ci àdduna bi ëllëg yowmal xiyaam dana la suturaal moo tax booba mi jaay waxtu wu ne saa su ne day bàyyi xel lu ni mel kon incha allah rabbi mbokk yi mën nañu ànd ñun ci 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 incha allah mooy bu mu jokkoo gi. comme neex itam boo ñëwee mën nga jël chiffre. man nga jël chiffre incha allah bi mën la cee mën la cee xoolal moo xam 1 ba 9 la moo xam 1 ba 16 la moo xam itam euh, da nga ñëw rek. Euh, daal joxe sa tur incha bi ñu xoole la ci wàllum tabe ak la caajo wala itam da nga ñëw rek maanaam ne man daal dama bëgg ku ma xool waaye dama leb tur bi am na yeneen jumtukaay yoo xam ne nii. alhamdulilah mën nañ la ci xoolal ndegam am solo subhanahu wa taala li fii ñu ngi déggante ak yow li nga xam ne ni mooy euh, prise bi mu ngi dox suñu déggante rek incha allah rabbi dañ la mën a balance la ba xoolal li nga xam ne ni mooy say itte kon loolu lépp dañ koy bàyyi xel ci 88 628 19 05 sëñ Fall loo xam naa lee leeral lépp ba nit ñi xam ko dana jafe waaye nag am luñ ci indi ba doomu aadama yi xam ne wàllum xel mënu jóom lu am solo la te itam war dañ cee mën a jëndee ko bu baax a baax am na solo comme ni ma koy faral di waxee saa su nekk rek ci ñi nga xamante ni jamono ji Euh, ñu ngi ñuy bàyyi xel ci sunu émission bi di jotaayu xam-xam du ma ne sax sunu émission seen émission la ndax yéen auditeurs yi auditrices Baol Médias saa su nekk rek yéen a koy wane mbëggeel gu ngeen ci am waaye itam yitte ju ngeen ko jox ba tax saa su nekk rek ñu leen di ubbil li nga xamante ni moo di sunu numéro yi di 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ko defee rek incha allah ñu ànd ak yéen ci seen émission jotaayu xam-xam mën ngeen a woy di jaar ci 88 628 19 05 88 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 yow mi nga xamante yaa ngi ñuy bàyyi xel te bëgg ku la seetal ku la firil sa gént waaye itam ku la xool sa ay nga xamante ni itam sa ay euh, sarax ndax da ciy am solo nit ki xam lan mooy saraxam waaye du lu la neex rek saraxe day am loo xamante boo ko saraxee dafay nekk li gën ci yow waaye itam yow mi nga xamante ni euh, yaa ngi euh, bëgg ku la seetal ci tukki bi nga xam yaa ngi ko bëgg jàpp jàpp ab tukki am tukki bi baax na wala baaxul wala ban jour laa war dem yooyu yëpp dafay am solo waaye itam yow mi nga xamante saa su nekk yaa ngi xëy di liggéey eh, te ngay gis heure boo demee rek bunt bi day daal di tëju nga daal di seet lu waral loolu eh, bu dee tëju la Seydina na la jox ay muslaay yu muccaay yoo xam nga ci moo di njëriñ kon saa su nekk rek dañuy daal di ànd ak yéen ci 88 628 19 05 88 628 19 05 kon la ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek muy borom xam-xam. Mhm. Euh, di la jox xam-xam euh, ba nga mën koo jëfandikoo te du la gaañ kon dañuy daal ànd ki nga xamante ni moo di Seydina dañuy ànd ak ki nga xamante ni moo di Seydina Ousmane Sourang ci seen émission jotaayu xam-xam xam naa nag man damay daal indi li nga xamante ni moo di samay question mhm. euh, bu ko defee ñu daal di ci ànd li ak auditeur auditeur Baol Média. Mhm. di wéy di woote ci li nga xamante ni moo di émission bi. Euh, Seydina fi may daal dikk man samay question mooy mhm. euh, damay faral di dégg lu bare bari ñu naan ah diw kat dañ koo dañ koo liggéey mhm. diw liggéey moo ko jàpp genre mhm. léegi nan la ñuy a xamee diw ku ñu liggéey ak yan façon liggéey moom parce damay dégg ñu naan kii dañ koo sëf kii dañ koo xabtal kii dañ koo def yi ak def ko yan yan yan yan leeral nga mën indi tey ki ñuy déglu kat xam ne ah man mii kat ab liggéey moo ma jàpp man mii kat dañ maa xabtal man mii kat dañ maa noot fi ma dañ maa sëf. Hmm. ak yeneen ak yeneen nan la ko nit ki mën a xam ne moom mi nga xam jamono ji mu ngi ñuy bàyyi xel. Euh, macha allah andi nga lu am solo loo xam ne yaakaar naa gars yi dinañ gën a bàyyi xel bu baax a baax ci 88 point 5. doomu aadama ci liñ ko mën a liggéey bëri na waaye ñi nga xam ne nii itam euh, dañ leen liggéey ci mbir euh, ci misaal ki nga xam ne nii ngelaw la kooku boo koy liggéeyee xam ne pour mu gën a gaaw a jàpp ci kaw nga koy def ki nga xam ne nii suuf la pour ab liggéey mu gën a gaaw a jàpp ci suuf nga koy def. waaye ki nga xam ne ni sawara la ci pegg euh, euh, taal nga koy def wala foo xam ne ni day faral di tàng kooku foofu nga koy def waaye ki nga xam ne ndox la moom fuy faral di tooy nga koy def kon loolu lépp dafa amal ci xeetu liggéey léegi nag sëf ci boppam dafa doy waar sëf ñaari kuñ ko def sa bopp day faral di métti ngay taayal doo am jàmm ligg euh, mën naa ne sëf bokk na ci liggéey yi nga xam ne mu gën a ak fas sëf ak fas nit ki sëf du am jàmm nit ki sëf fu mu toll yaramam day taayal yaramam day fasu ba pare moom du am benn cawarte ki nga xam ne nii dañ koo liggéey waaye dañ koo liggéey ci kaw moom wala ci picc kooku moom bu fekkee ci kaw euh, garab la daanaka day dem ak dikk rek moom du toog ki nga xam ne dañ koo liggéey ci picc picc ma saa yu nawee moom day jóg naaw saa yu picc ma nawee mu jóg naaw dangay gis koo xam ne day dem ci barab toog su toogee ba waxtaan lu commencé neex ba jàpp ne kii moom tey lu mu gàtt gàtt dana am une heure temps wala mu tàggatoo ne maa ngi dem ñu ne ko toogal mu ne maa ngi dem fekk ne liggéey ba nga xam ne dañ ko def ci am picc wala ci am petax wala lu ni mel ba mu moo tax amatu jàmm rawatina ñi nga xam ne dañoo dem ba xaw a taqalegoo ak ñi nga xam ne nii mooy mooy seen seen xel. léegi nit ki nga xam ne nii euh, dañ koo liggéey maanaam dañ koo euh, liggéey waaye dañ koo dëddale ak soxnaam wala ñu dëddale ko ci kër ga nekk wala barabam nekk loolu li ci ëpp ñi koy liggéey. waxuma nag li doon la waaye li ci ëpp ci lañ koy liggéey am na si ñoo xam ne ci dàll lañ koy def dàll maanaam bu ñu ko defee ci daal la tey ñu ne Seydina Ousmane kan ma nga bawal média mm, léegi kël def liggéey ba ñëw na ba dugg ci biir bawal média génnaar rek yóbbu daal la wax xool fa Seydina Ousmane bëgg mu nekk mu sànni foofu daal ba ala kulli aal day génn te foofu rek la jëm moo xam da koy sànni ci àll ba ku su boobaa saa yu génnee àll ba rek moo koy yóbbu da gis ñoo xam ne dañuy ànd ak seen manque de xel saa yu jógee ci àll ba la ji dem toog bu leen yóbboo ci kër gi itam yàgg yàgg dañuy tourné demaat ci àll ba ñooñu nga xam ne kon liggéey ba leen def dañ ko sànni ci àll ba moo tax dañ leen dëddale ak kër ga wala dëdd leen ak barab ba am na ñoo xam ne ni barab ba ñu liggéeyee moom leen la leen dëddale saa yu jógee ci kër ga dem ci barab ba buñ àggee duñu fa man a toog seen yaram day diis wala ñu tayal nga xam ne kon liggéey booba ci barab ba lañ ko def imma bu fekkee ci kër ga la kasaako itam noonu na ma mel ci place ba noonu lay mel ci kër gi am na ñoo xam ne ni seen liggéey ba ci kër ga lañ ko def waaye nag nekkul ni ci place ba lañ koy def kon kër gañ ko def euh, ka nga xam ne moom lay liggéey saa yu boppam day métti aw yaram di tayal am xelam daanaka du fa lan lay bëgg mooy dem rek kooku mooy liggéey ba nga xam ne dañ ko def ci kër waaye ki nga xam ne nii moom euh, ki nga xam ne ni moom dañ ko lan not ki nga xam ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ koo dëddale moo xam nag dëddaleeg eh, dëddaleeg ñaar ñi nga xam ni ku mel ne tey eh, sëñ Fallou Fall dajeeg Ibrahima Khalil Diop am ndaw soo xam ne doon nañ ko bëgg léegi Ibrahima xam sëñ daara la am lu mu xose xose jël sànni eh, su boobaa ndaw sa nga xam ne ne ñoom lañ doon bëgg ndaw sa fekk ne sëñ Fallou Fall la gën a bëgg bëggutoon Ibrahima te Ibrahima xam ne ne ndaw si baax na ci moom soo defee la def ndaw si day mel ne saa yu gisee ki nga xam ne mooy sañ Fallou Fall xel ma dootu nekk ci moom waaye day bëgg musulu ko day mel ni li ñuy wax ku gis butitam waaye nag saa yu gisee Ibrahima dootu ànd ak sagom day bëgg Ibrahima jege ko muy waxtaan ak moom même su yëkkatee téléphone sax woo ko du bëgg communication ba nga xam ne nii mooy dox seen diggante ñoom ñaar euh, mu coupé kon loolu itam bokk na ci ay dëddule yoo xam ne nii mënees na koo xàmmee euh, dëddule boobu nag dafa am ñaari dëddule am na ci dëddule boo xam ne nii dëddule xalima la am na ci boo xam ne ni kurus la waaye am na ci boo xam ne ni rab la li gën a doy waar rek mooy dëddali bi nga xam ne nii dañoo yebal rab nekkoon ko diw sàngam mi bu mu demati ci diw sàngam na ko bàyyi ba furro am na ñoo xam ne ñaari dañuy dem ba seen xel day manqué ndekante liggéey bu am doole bañ leen def moo waral seen xel di manqué kon liggéey yi nga xam ne daal moom la ñuy def nit ñi bëri na liñ ci mën a waxtaanee bëri na waaye incha allah dañuy yaatal mbokk yi ci 88 628 19 05 88 628 19 05 ñoom itam ñoo andi seen contribution. da ngay gis nit day lan moo ko def loo suñ ko laajee mu ne man amul benn problème yàllaa jeexal suñuy diggante naam dëgg la diggante boo jeex yàllaa ko jeexal waaye dafa am sabab dafa am sabab. kon am na ñoo xam ne dañu xëy xëy rek wàcc seen soxna ndeket na ñoom dañ leen a dëddule day toll foo xam ne ne li feek bàyyiwu ko du am jàmm li fii ak bàyyiwu soxna sax du am jàmm kem ni nga xamee ne nii tey boo defoon kaaraange sa kër nit euh, jógee fa sori ñëw fa ngir yàq si waaye da ngay gis nit day dugg si si ab barab mel ni kuy seet si ab sëriñ di ñaanlu wala mu dugg si entreprise ndekete yàq moo ko fay ndóor waaye day naan warret tourné waat tournée bu gaaw boo xam ne nii dana waa kii lan la lan lay tourné lan la ñëw fi tourné waat mu mel ne dafa am lu fàtte fekk fàttuwu dara waaye kaaraange ja nga xam ne moo nekk ci barab booba mooy mel ni luy lakk ay tànkam ba du am amati jàmm kon yooyu yëpp ci wàllum kaaraange la waaye itam ci wàllum sëf ci lay delluwaat suñu fàll mhm. euh, am na solo xam naa dañuy daal di joxewaat numéro yi rek donc lay bàyyi nga continuer mhm. pour ñi nga xamante ni jamono ji ñu ngi ñuy di dab ci seen émission jotaayu xam-xam ci 88 point 5 Euh, Baol Média nekk fii ci Mbacke Tabla Thiaby xàll ba jëm Touba kon euh, yéen ñi nga xamante ni jamono ji yéen a ngi bàyyi xel te bëgg a àddu ci émission bi mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek yow mi nga xamante ni jamono ji bëgg nga ku la seetal wala ku la firil sa gént bi nga xamante ni amoon nga ko mu xaw a jaxase sa xel euh, mën nga wootee yow mi nga xamante ni itam da nga bëgg di amal ay sarax euh, te xamoo yan sarax moo gën ci yow bu ko defee rek incha allah boo wootee euh, Seydina dina la wax yan sarax ngay utiliser bu ko defee mu nekk li nga xamante ni day taw féexe waaye itam yow mi nga xamante ni yaa ngi sa bërëbu liggéeyukaay bëgg ko la ci defal ay muslaa yow mi nga xam da ngay tukki di xool ba xam tukki bi baax na wala baaxul wala ngay xool ba xam ban jour nga tukki wala ban heure wala ban date da ciy am solo ndax mhm. tukki euh, dafa am app booy tukki dafa am bés boo boo xamante ni ah moo dëppoo ak say rawaan am bés boo xamante ni kat moo baax ci tukki am bés boo xamante ni kat nii ngay tukki wala heure bi kon yooyu yëpp dafay daal am solo nit ki euh, di ko seetlu waaye itam di ci amal ay muslaa yu am solo bu ko defee saa su nekk rek xam nga am na ñoo xamante ni tey bu ñu bëggee tukki buñ ko teelee wax euh, dootuñu tukki day daal di yàqu mun mel ni am na ñoo xamante ni seen i mbir euh, bëggul siiw kon ñooñu ñëpp itam buñ ko fekkee xamuñu ko dañuy woote ci 88 628 19 05 88 628 19 05 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay ziar baax a baax. ñooy doolee ziar baax. tur bi nan la ak fay wootee. soxna Faali la. Baali. soxna Baali dafa bëggoon a leerlu. waaw. soxna Baali fooy wootee. soxna Baali wala soxna Faali. Hmm? soxna Faali di wootee Touba. soxna Faali. di wootee Touba. waaw Seydina. waaw soxna Faali li jiitu say mbir rek mu ni wàllum tabiya bi soxna Faali mi ngi nekk naar yu mooy ak leer. waaye soxna Faale biddiw bi mu ngi tudd mustari moom dalay wax na la bisub alxemes la moome alhamdulilah soxna Faale sa biddiw bi nga xam ne nii mustaril tudd moom alxames la moom alxames bu ci ne biddiw ba day xëy génn 7 heures dugg 8 heures génnaat 14 heures dugg 15 heures génnaat 21 heures dugg 22 heures soxna Faale. Euh, soxna Faale dañuy gis ne nag imaam bu dee ci wàllum sant bi maanaam ci wàllum yaram bi loolu yaram boo xam ni day faral di diis waaye nag bopp ba moo ci ëpp doole soxna si dañuy gis ne bopp bi day faral di métti soxna Faale rëcc na. fàllu Euh, Soxna Faali euh, rëcc na ba tey Soxna Faali mën nga jaaraat ci 88 628 19 05 88 628 19 05 waaye itam yéen ñi bëgg a def ni Soxna Faali maanaam ngeen bëgg a dugg seetlu yéen tam mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah bu fekkee da nga bëgg ku la seetal danañ la seetal bu fekkee da nga bëgg ku la firil sa gént

bu ko defee rek bu fekkee da nga bëgg ku la seetal danañ la seetal bu fekkee da nga bëgg ku la firil sa gént itam euh, dinañ la ko defal bu fekkee itam da bëgg ku la xoolal sa ay sarax wala sa ay muslaay wala bërëb bi nga xamante ni yaa ngi ci bëgg ku la ci defal ay ñaan parce que euh, comme ni ma ko waxee woon léegi ci kiy tukki nit dina nekk ci bërëb euh, bëgg bërëb bi dara dafa dox maanaam buy jaay day làng nit ñi nit ñi doxle bu baax baax mais moom doxlewul day jàpp ne sax wërsëgam moo tëju fekk bërëb ba mu nekk moo baaxul mhm. loolu dafay daa dem kon bërëb ba nga nekk pour nga xam baax na wala baax il nga seetlu ko seetlu gi nga koy seetlu nag mooy tax nga xam ba xam baax na wala baaxu léegi nag boo ko seetloo euh, Seydina daf lay daal di seetal pare ne la ah del utiliser muslaa yi ca bërëb ba bu ko defee li nga amoon ay jafe-jafe jàpp na yaa tëju fekk bërëb bi moo tëju boobaa da ubbeeku te gën a dox parce que euh, li may faral di wax rek sunu borom subhanahu wa taala euh, wàcc na fi façon muslaay bu nekk boo xamante jàmm bi mën na koy jariñoo ci ak dundam kon ñun bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xeeb suñu bopp waaye nañu gëm ne saa su nekk rek am na ku mën a régler li nga xamante ni mooy sunu ay jafe que suñu borom moo ñu sàkk ñun ñëpp waaye yemalew ñu dafa jox ñi euh, xam-xam jox ñi alal jox ñi euh, ay nekk ay jafe-jafe mais suñu borom lépp lu mu teg jàmbi rek parce que xam na ne attan na ko waaye attan goo nga ko attan nag tekkiwul ne da nga war a toog rek naan suñu borom dina ko dina ko saafara parce suñu borom ni mu la ko wàcceele noonu la la wàcceele kat li nga xamante ni moo koy saafara kon saa su nekk yow mi nga xamante ni yaa ngi euh, ci jafe-jafe wala yow mi nga xam bëgg nga ku lay seetal bëgg ku la firil sa ay gént yooyu yëpp dafay am solo parce que gént dafa day am fu mu tool des fois dañ lay liñ lay wan nag pour nga xam ko il faut que nit tekkil la ko nga xam ne ah lii la may wan kon lii dañ lay bu mucc ci bu ko defee nga wut ci ay ñaan ñu ne ah yow kat saraxee lii ak lii maanaam ngay wérde lii wala ngay def muslaa yi ko defee yow mi nga xamante ni géntul nga gént goo kat da nga xam ne gént gi gént gu am la parce que am na lu mu la te leen la wan kat euh, borom boo xamante ni suñu borom moo ko jox euh, baaxee na la ko ba nga mën ci ba nga mën ko utiliser di def say sarax pour mu mën cee euh, mën cee jariñu kon saa su nekk loolu mooy tax rajo Baol Média FM di 88 point 5 nekk fii ci Mbàkke tablo caa bi indi leen ay émission yu am solo yoo xamante ni saa su nekk rek auditeurs yi dañ ciy mën di bàyyi xel dañ ciy man di jariñu waaye yow mi nga xamante ni itam yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ji te bëgg àddu ci émission bi maanaam nga bëgg ku la seetal ku la firil sa gént wala ku la defal ay ñaan ay muslaay wala ku la bëgg ku la seetal ak yeneen ak yeneen mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee ñu ànd ak Seydina Ousmane Sourang euh, di borom xam-xam macha allah sunu wa taala di leen ko jox ngeen mën ko jariñoo ngeen mën koo jëriñoo te du du leen lor parce que nag nit dina joxe xam-xam des fois mujjee indi lor waaye mm-hmm. moom daf lay jox xam-xam nga mën koo jëriñoo te du la gaañ kon mu nekk lu am solo loo xamante ni saa su nekk rek dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ni euh, ñu ngi ko doon wax léegi nii muy ku liggéey jàpp nan ngay xam ne ah liggéey ko jàpp kii dañ koo dëddale ak waa këram kii dañ koo dañ koo dañ koo xabtal kii dañ koo sëf kii dañ koo def nii ak yu bëree bëri ñu koy faral di dégg nit ñi di liggéey des fois nga dégg lu nekk kii dañ koo liggéey dañ koo li mais nan la ñuy xamee kat ne nit ki kat ah liggéey bee ko jàpp ndax kat Euh, nit ki dañ maa liggéey rek te xamoo ban liggéey moo la jàpp mm. sa yaram mu ngi diis te xamoo dañ la sëf xamoo ban liggéey ah, gi xamoo ban liggéey moo la jàpp ak yooyu yëpp nit ki amatul jàmm ci kër gi foog fekk day mer foog fekk day tàng ci kaw nit ñi ban liggéey moo ko jàpp donte ni donte ni loo ci gis rek am na lu ko war a saafara loolu mooy waral saa su nekk rek ñuy ubbi antenne bi di leen ngeen di jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 Seydina mm. nga dellusiwaat ci ak ban façon liggéey moo koy jàpp bala ñu daal di dikk ci li nga xamante ni euh, mooy mooy façon liggéey yi parce que nag nit ñi wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, saa su nekk rek nit ñi di ko réclamer saa su nekk nit ñi di am ay jafe-jafe mais day lu mënul ñàkk mm-hmm. parce que suñu borom moo ñu moo ñu moo ñu wàccee mm-hmm. solo ci société bi di jox nit ñi yu mel noonu ñu ci mën di jariñu kon Seydina da ngay daal ci point boobu waaye du tee képp koo xamante ni tam mën nga bëgg nga àddu man nga jaar ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08. macha allah macha allah jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal da nga laaj lu am solo muy ci cadre liggéey. dafa am ci loo xam ne nag euh, ki nga xam ne ne xam-xamam moo màcc jëm ci côté booba su demee ba koy xool ci la koy xoolee ci lay amee ay tegtal yu wér ba xam ne kii dañ ko liggéey wala kii rab moo ko jàpp wala kii maanaam dafa feebar rek feebar naturel mais nag am na ci signe yoo xam ne ni comme ni nga ko sàkkoo ñu leeral ko am na ci signe xam ne ni noonu noonu lay mel imma euh, ci tënk rek bu fekkee ki nga xam ne nii Euh, dañ ko dañ koo liggéey comme li ma la waxoon léegi bu fekkee dañ koo sëf yaramam day faral di diis mooy faral di tayal su fekkee ki nga xam ne dañ koo dëddale ak barab bi mu nekk moom ñaari saa yi ñëwee ci barab ba du amati xemem téefu toog ci barab ba lan lay bëgg mooy génn ci barab ba dem dem dem feneen am na ci ñoo xam ne ne lañ leen liggéey mooy comme li ma la waxoon léegi ci naawtal lañ ko def benn muy picc wala muy petax wala muy luy naaw rek nga xam ne loola saa yu jugee ñoom ñu jóg waaye loolu itam saa yu toogee ñoom ñu toog am na ñoo xam ne nag liggéey bañ leen def euh, seen mbokk moo leen ko def te xamul ne moom moo leen liggéey naka la leen seen mbokk liggéey da gis koo xam ne day jóg dem cib sëriñ man de sama doom ji ba mu demee ba léegi yàgg na xaw ma ci moom dara wala nga dégg mu ne la xam naa ci moom dara ndax mi ngi woote waaye rek dama bëgg mu ñëw ndax ba mu demee dafa yàgg dama bëgg nga defal ma loo xam ne day daal di ñëw day au lieu au lieu mun damaa bëgg nga defal ma loo xam ne nii day dem a ak ñëw waaye du la ko wax dama bëgg nga defal ma loo xam ne nii day daal ñëw yow ma nga xam ne ni ab sëriñ nga bala ngaa suubu ci loola danga nga ko war a njëkk a delluwaat ci yàlla xamal ko ne ko sa doom ja tukkikat bëgg nga mu ñëw waaye bu ñëwee lan lay def ndax am nga loo koy jox parce que dañuy wax ne yaay diggante yaay ak doom dafa neex lool ci xol ba tax moom du bëgg doom ji léegi-léeg mu sori ko day bëgg doom jege ko léegi nag bu la liggéeyloo ne la dama bëgg nga defal ma loo xam ne day ñëw nga def loo xam ne nii doom ji day ñëw bu ñëwee day toog day dem ba du amati njariñ ci kër ga am na ñoo xam ne ni dañu koy dëddlewaat génn ko ci kër ga te wala sabila fekk loolu lépp bas bi ci yaay ji loon waaye yaay ji coofeel bu amoon ci diggante ma dooma moo taxoon mu def loola yow mi nga xam ne yaay ab sëriñ nag wala nee nga ab sëriñ nga di yëngu ci wàllum ñaan su ñëwee su demee ba mëntu ñàkk da nga koy defal loo xam ne nii day ñëw ak a dem parce que kii walanteeru bu tukki xamoo ci ban yoon la jaar ba tukki dafa jaay ay bagaasam wala dafa duggoon ci géej gi nu mënti def rek ba tukki rek soo koy indiwaat war nga xam ne ci yan condition nga koy indi war nga mën a fexe loo xam ne nii day dem ak ñëw te bañ a def loo xam ne da koy da koy da koy indi rek mu toog am na ñoo xam ne nii ndeysaan léegi-léeg bu ñuy def dara di boole di tasxiir maanaam mama booba ñoom ci la ñuy juumee ndax bu fekkee ne xawaatim bi nga xam ne nii wala laay bi nga xam ne nii euh, day boole moom nga war a jël léegi nag loola nga def ci ab liggéey su boobaa day doy waar wala loola damma tey ci misaal nga war a bind xaati mu xaatima muraba xaatima muraba booba damma soo ko jëfandikoo da ngay am problème léegi nag problème booba soo demaate ci beneen sëriñ mu seetal lan lay wax yow dañ laa liggéey wala yow def-def moo ne ci yow na am dëgg la wax na dëgg def-def moo ne ci yow ndax li ne ci yow def-def la mais ka ko def jubluwu ci woon def-def boo xam ne nii nag dalay gaañ la bëggoon mooy yow nga am njariñ ci li ngay nga gis njariñ ci li ngay sangoo ci li ngay jëfandikoo kon moo tax itam ñi nga xam ne nii dañuy bind xawaatim lillahi wa rasuli war nañoo fexe ba xawaatim yi nga xam ne nii ñu ngi bind bu mu damm su dammee mën na andi ay def-def ci nit ki te lu boobaa itam loola mën na indi li ñuy wax beneen eh, difficulté loola dañu ko war a bàyyi xel bu baax a baax eh, nit ki nga xam ne nii dafa weex dunq te amul benn gàllaaj du tëdd du léemu du dox di gëmul takk gëmul suur gëmul naan wallahi alasim bis dana ñëw mu gëm yooyu yëpp ñu koy wax bis dana ñëw mu gëm yooyu yëpp ñu koy wax 88 point 5 Baol Média FM 88 628 19 05 incha allah ngeen ànd ñun ci buum ak jokkoo gi ngir yéen ñi nga xam ne ne yéen bëgg firi seen génte wala jaaju comme mbokk yi fi jaar léegi rek ñu seetal leen comme ni ñu ko defoon incha allah ngeen def noonu am na solo Euh, comme ni nga ko waxee rek noonu la yéen ñi nga xamante ni jamono ji yéen a ngi ñuy bàyyi xel ci 88 point cinq mën ngeen di woy di ànd ak ñun seen émission jotaayu xam-xam di seet firi gént euh, listaxaar xool seen ay rawaan ba xam dëppoon na biddiw bi waaye itam xoolal leen seen ay sarax. mu nekk lu am solo loo xamante ni yow mi nga xamante ni jamono ji yaa ngi ñuy bàyyi xel mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 ko defee rek euh, balay ñuy yëkkati li nga xamante moo di jotaay bi euh, ngeen profité ci rek incha allah ànd ak ñun seen émission jotaayu xam-xam nee naa la yow mi nga xamante ni euh, da nga sa yaram dafa diis nga jàpp ne kat. ah yaram bi kat war ngaa xool lan la kon wooteel bu ko defee Seydina xoolal la ko incha allah lu mu ci mën di doon ah, bu fekkee ni ah, kër docteur moo ko war a saafara incha allah Seydina dina la ko daf ko yittewoo rek ah, moom itam dina la ko daal di defal kon yow mi nga xamante ni rek yaa ngi ñuy daal di bàyyi xel ci sunu émission bi di jotaayu xam-xam mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala nga jaar ci 88 628 incha allah bala ñuy daal di yëkkate jotaay bi rek képp koo xamante ni rek ba nga àddu mën nga daal di wootee euh, ba tey Seydina ñuy continuer li nga xamante ni moo di Euh, émission bi ci ay question euh, ndax léegi nii rek ñu ngi daan laaj yan façon euh, liggéey maam signes yi nga xamante ni ku ñu liggéey dana ko wane waaye itam yan yan yan fànn wala yan anam la nit mën a jaar ba liggéey nit parce que des fois damay dégg kat ñu ne ah kat sa bi parce que la fois passée rek yaa ngi koy wax ci sa biir kàddu ni nga ah boobu dàllam réeree xaw ma na ko respecté wala nit ki ay yére bi muy wékk fee na ko bàyyi xel ak yeneen ak yeneen ak yan anam ci xam naa nag du du loo xamante dañuy mën a citer lépp waaye ci yan point yoo xamante ni day day da nga koy faral di gën a gis nga xamante ne kat ah nit ki mu ngi sàggane li te lii kat nit mën na ko cee liggéey bu ko def ba mu jàpp ko wala lii kat dara dara mën na cee jaar ba mujj jële ci feebar mu nekk loo xamante ni itam euh, auditeurs yi ñuy déglu dafay am solo ñu xam ko ba bañ mën koo moytu. Mhm. Euh, macha allah gis nga liggéey nit dañ ko yombal waaye yombul. Mhm. liggéey nit nit def lu koy tëj ak def lu koy yàqal moo gën a yombal liggéey nit jàpp ko. parce que doomu aadama yàlla dana wala xada karam naa bànnee aadama damaa teral doomu aadama kon teral gi mu teral doomu aadama nekku ne day sànni doomu aadama noonu rek bëriwaano nag ñoo xam ne ñi ngi taxaw ci yoonu nit ngir bañ mu jàll mais lañ ñi daj bu démb doon tey duñu ci dugg dugguti mukk parce que la ñuy joxe avance ba pare nag war a sëgg bëree dem ba ci biir ñu gis combat bi loo xam ne bu démb doon tey duñ ci dugg kon ñi nga xam ne nii euh, bëgg nañ ku leen liggéey liggéey booba dell ci ñoom wala ku la liggéey du jàpp wala itam ku jóg di la fexeel fexeel mooma du euh, sotti loolu lépp da nga war a fagaru waroo rek naan yàlla baax na yàlla yàlla bay sa tool yàlla yàlla bay sa tool parce que euh, yàlla sax borom subhanahu wa taala bu wax la wala xad karam naa bani aadama tëral gi mu tëral doomu aadama war na tax képp ku jóg ni da nga yàq nit nga war xel sa diggante ak euh, yàlla suñu borom subhanahu wa mi nga xam ne nii moom moo la sàkk doomu aadama xaye kulli àll ngir liggéey ku du jàpp moom loola moo koy liggéey wala muy ñaanu kilifa su muy moo koy liggéey daanaka day yóbbuwaat lépp man nga ñaanal man nga liggéeyal sa kilifa moo xam sa sëriñ bi nga wax aslamtu si moo xam sa waajur bu jigéen wala bu góor wala ngay nangoo sonn ci askan wi di saraxe te yàlla tax di dimbale te yàlla tax loola mën na war a sax képp ko la bëgg def lu bon du agsi ndax lan ñaan yi nga xam ne nii ñooña ña la koy ñaanal kon ndeke doomu aadama kat soo su xoolee bañ liggéey ak càggan am na ci léegi nag liggéey euh, damay faral di wax ne bëri waa na ñu jóg dem ci sëriñ 88 la 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 su ko defee itam mbokk moom incha allah rabbi ñu jéem ànd ak moom euh, jël ko leeral ko li nga xam ne nii moom lay sàkku leeraloo asalaamaaleykum wa rahmatullah. allo soxna Faly moo doon Soxna waaw. waaw soxna Faali moo dellusiwaat bëgg ko seetal Seydina. Mhm. soxna Faale comme soxna Faale Faale li la wax léegi rek tabixa bi nëriwul ak leer waaye biddiw ba ma nga tudd mustari Faale biddiw bi ma nga tudd mustari mustari moom dalay wax na la alxemes la moomee alxemes xëy génn sept duggu huit heures génn quatorze heures dugg quinze heures génnaat vingt et une heures dugg vingt deux Mm. dañuy gis ne yaram bi day faral di diis léeg-léeg muy yéeg ba jàpp bopp bopp bi di faral di métti. Mm-hmm. waaw bopp bi di faral di métti am na ci lool nag maanaam tawat la nii comme tawat yi mais am na ci loo xam ne nii li ñu wax ndoxam siti la tawatu jamono. loolu boo xoolee asim na daal day faral di jàpp ndigg li léeg-léeg muy métti lekk gi léeg-léeg na koy bëgg ak na mi amee day am ak waroo. soxna si nga baal ma saa yoo demee bay faju de lu jëm ci wàllu rab war nga ko faj te rab itam day nekk rabu cosaan da amoon maam walla baay bu daa yëngatu ci ay ñaan waaw da amoon baay wala maam bu daa ci wàllum ñaan la wax allo mu mel ni uh, déggante bi bu fekkee da amoon baay wala maam boo xam ne da doon yëngu ci wàllum ñaan soo mënee delluwaat ci cosaan incha bi ñu defal la ay cangat su fekkee itam moom dafaa dellu itam nga wut koo xam ne ni dalay defal cangat yoo xam ne ni day delluwaat ci wàllum rab. rab bi nga baal ma ci rajo la ñu waxee ku ne lay dégg waaye moo lay dikkee jëf yoo xam ne ni yow si jëmm léeg-léeg da koy def te xam nga ne lii neexul la waaw jëf yoo xam ne da nga koy def ba pare xam ne lii neexul la mais nag dangay def ba pare nga tura dëgg ci waat loolu rab bi moo la ciy posé nga koy def. kon ala kulli yàlla am na ci loo xam ne nii mënut a ñàkk nga ñaan la ci wàllu rab ndax rab bi may la jàmm incha allah rabbi soxna Fadi del liggéey del liggéey maanaam di wirda euh, ma nga wirda ah. soxna Fadi euh, del liggéey soxna na waaw del liggéey alam nasara alam nasara déggoo liggéey 111 soo paree itam ngay liggéeyaat basmala 787 basmala muy bisimilahi rahmaani rahim 787 euh, soxna Fadi. li ma la wax léegi leer na am na ci mbir yoo xam ne da cee dugg waaye du nekk loo xam ne lu la gën la loolu rab bi moo la ci proposé. Hmm, am na solo ba tey euh, mën ngeen di wéy di ànd ak ñun ci 88 628. 1905 88 628 1905 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah euh, boo bëggee ku la seetal ku la firil sa géntuwaay itam euh, ku la xoolal sa ay rawaan euh, ku la seetal ku la jox ay ñaan ay muslaay yoo xamante ni macha allah da koy daal di soxla sa biir kër wala sa njaboot wala itam da nga koy soxla ci bërëb bi nga xamante ni yaa ngi ci yëngoo di liggéey boo wootee rek incha allah dañ la ko defal asalaamualeykum.

88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah bu ngeen ci numéro yooyu rek danañ leen mën a dégg euh, déggante bi dina neex ci 88 628 81 08 wala 88 628 81 08 wala 81 09 bu ko defee rek 05 bu ko defee rek incha allah ñu ànd ak yéen seen émission jotaayu xam-xam la ñu ànd ci ak Seydina Ousmane Sourang euh, mu lay jox xam-xam te du la gaañ asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum kilifa gi ñu ngi lay ziar. tur bi nan laa fooy wootee. Cheikh jaañ Cheikh jaañ mooy wootee Touba. suñ Cheikh loo bëggoon. Euh, Cheikh Diagne mooy wootee Touba bëgg ko seetal. <laughs> Cheikh Diagne jërëjëf sëñ Cheikh euh, Cheikh 1610 sëñ cent 1610 mooy li nga xam ne mooy sa limu tur mooy sa poids mystique jaañ nga day taxaw ci 67 macha allah sëñ Cheikh li jur sa mbir kon wàllum tabixa bi mi ngi nekk naar yu mi ngi nekk maa yu mooy ndox ndox moo nekk sa tabixa waaye itam sëriñ Cheikh sa biddiw mi ngi tudd Mariix moom bisub talaata la moome alhamdulilah talaata moo la gën a jubu ci bis yi lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek su la neexee mën nga tànn bisub talaata benn muy tukki wala muy tuxu wala muy sanc barab wala muy def ay déplacement jógee ci barab dem ci beneen barab soo tànnee la nga xam ne mooy bisub talaata bi incha allah bi yàlla mën na ko barkeel mën na la caa defal lu kawe njortu waaye sëriñ bi itam dalay wax ne la bu fekkee ci cadre sarax la mën nga génni laax laax boo amee benn ndab baax na soo amee ñetti ndab baax na waaye li nga xam ne ni mooy tuur de sarawaxan bëgg ko bul ko faral di def ñaari saa yoo tuuree rek say mbir mën na xaw a doy waar lool lool lool soo mënee itam léeg-léeg ngay faral di bégal maanaam tout tànk yi tout tànk yi nga leen di béggal waaye xam naa jamono bi ñu toll sañ seex mbir yi li nga xam ni moo ci naqari di ci métti moo ëppale ci neex ndax li ma gis gisagum fii moom day mel ni bànneex bi daal naqar bi moo gën a bëri soo mënee nag euh, di def li nga xam ne ni mooy war a fax naaw makkaana liyan dana tax yàlla saa borom subhaanahu wa taala gën laa yëkkati gën laa musal ci la nga xam ne ni rek mooy eh, yëngu-yëngu yoo xam ne nekkul la la gënal euh, bu fekkee tam ci cadre noonu yi comme ni may faral di wax rek saa yoo jullee ba pare defal war la lasiina kafaroo bi xaysim lam yanaaloo xayran wa la muminina xitaalan wa kaana allahu xawiyan xasisan warda llaahu lasiina kafaru bi xaysihim lam yanaalu xayran wa kafa llaahu mu'miniina xitaal wa kaana xawiyan hasanan lii incha allah rabbi boo commencé liggéey noonu dañ la may jàmm te itam rafa na ma kàllaan leen bi nga koy composé moom itam dañ la gën a dimbale ba wërsëg wi ni mel noonu lu tëju cat di la faral di gàllankoor incha allah rabbi yàlla saa borom subhaanahu wa mën na ci def tawféex bu baax ba mu ba mu am li nga xam ne nii mooy changement sañ seex barakalla fekkee am na lu muy laajaat allo mu ne ndax daa am looy laajaat. Hmm? Hmm. place bi looy liggéey place lan la commerce wala téer wala. jaay jaay ah, ah. jaay mooy commerce seen seex 1610 euh, hmm, ak lan 981 kon ma def nii euh, def 1610 euh, 981. Eh, commerce commerce commerce commerce commerce aha mm, deux cent deux mille huit cent cinquante six eh, deux mille huit cent cinquante six ah sëñ bi day baax na waaye wërsëg bi moo du taxaw sëñ Cheikh ma ne baax na de mais wërsëg bi moo du taxaw maanaam li ngi am ci place bi day gaaw a seede waaw li ngay am ci place bi mooy mooy mooy gaaw seey place bi baax na macha allah baax na trop mais li ngay am mooy gaaw seey te itam yow sa jëmm cat dafa nekk ci eh, li lay yàqal maanaam dafa bokk ci say gàllankoor li waral nag cat gi la gën a gàllankoor mooy tur bi daa jiitu jëmm ji tur bi daa foo xam ne ne jëmm ji àggu fa te itam yow sa jëmm defoo dara muy dara sëriñ bi dañ laa mos a digal ngay ngay tuur deret dañ laa mos digal ngay tuur deret maanaam nga rey ngir ab sarax waaw bu ko def ndax nekkul loo xam ne ne sarawaxaan da koo bëgg ñaari saa yoo ko defee rek mën na laa yàqul lu bëri place bi baax na macha allah liggéey bi baax na parce que boo delluwaatoo sax ci cadre chiffre fi taxaw chiffre bu baax ci la tax muy chiffre 7 baax na trop gisuma ci benn jafe-jafe lu dul euh, koom-koom mi nga xam ne mi ngi am mais du taxaw ci loxo bi ak yow si jëmm itam léegi-léegi yaakaar bi nga xam ne day faral di tas loolu mbirum cat dong la ndax tur daa jiitu jëmm ja daa foo xam ne jëmm jàggu fa place bi du soo ci mënoon a laax rek mm, wala nga nga wut nga wut meew fanaan na ko ci place bi ak suukar soo xëyee suba teel nga def rek ba mu baax nga def ci glace incha allah bi nga sarax ko ay tànk su boobaa nag bul génn place bi yow taxawal ci buntu place bi nga def ko ci ay mbuus wala ngay xelli di joxe tànk yi ñu jël dem incha boo ko defee te dolli ay ñaan ci place bi yàlla saa borom saa wa mën na ko barkeel mën na ko gën a def tawféex bu baax a baax place bi nag sëriñ bi dafa mel ni daal xam naa ne daal boo demee ba ci biir Euh, baax na baax na daal waaye boo doole ñaan incha allah yàlla mën na ci def tawfiq bu baax ba la nga ci bëggoon nga am ci lu koy njort waaw defal defal defal noonu rek incha allah place bi dafa am lu muy laaj rek waaye place bi baax na waaw bu dee ay yàq-yàq na wax dëgg yàlla gisuma ko ci moom place bi mu am lu muy laaj rek waaye gisuma ci yàq-yàq loolu tax nag yaa ngi ci xel yaar lu bëree bëri waaye gisuma ko ci man. Mhm. si Cheikh mu ne bu fekkee amaato beneen question. wàllu wér-gu-yaram bi nag. wàllum mhm. ma jëlaat ba léegi 1610 sin seex waaw euh, sa turu waajur wu jigéen mën nga ko wala day ah, sëñ Fall baal ma ngi jël ma ko orantine mu jox la turu waajur wu jigéen. incha allah bi waaw boo ko defee euh, ñu mën koo xoolal ndax euh, feebar bi wala nga bàyyi sax bàyyi ma jaar fee. Mhm.

2598 euh, 2597 euh, uh-huh. uh-huh. maa ngi jégalu 2698 nga poyesi 500 2698 sëñ bi de xam naa day mel ne tawati bët daal ak siti moom mooy moom laa gis ci yaram bi tawati bët ak siti siti bi ne dafa dem ba ànd ak li ñuy wax hémorroïde hémorroïde booba moo lay dikkee ndikkee di faral di métti di wàcc ci tànk yi boo toogee lu yàgg boo jógee tànk yi di diis mel ni luy nagam ñaari boo toogee lu yàgg itam day mel ni dafa am luy dox sa yaram wi loolu moom siti bi rek moo koy def ñaari sax day dem ba boo tëddee ba yeewu nii pour nga jóg day xaw a diis ci yow nga xam ne da force jóg booy jóg loolu moom tawati siti laa ci gis ak tawati lu ci mel ni kii bi rek eh, cat bi ñu lay wax ni waaye gisuma ci lay wax dëgg yàlla baarakala sëñ Cheikh. Mhm. bu fekkee am na beneen laaj. sëñ Cheikh. Mhm. mu ne bu fekkee am nga beneen laaj. jërëjëf sëñ Cheikh waaw. Euh, jërëjëf comme euh, sëñ Cheikh. Mhm. mu mel ni euh, kàddu gi daa xaw a suufee. waaye mën ngeen a woy di ànd ak ñun rek ci 88 628 19 05. 88 628 19 05 88 628 81 08. 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah yow mi nga xamante ni yaa ngi ñu bàyyi xel nga bëgg ko la seetal ko la firil sa gént wala itam ku la xoolal sa ay rawaan ku la wax sa ay sarax euh, mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 81 08 bu ko defee incha allah ñu ànd ak yéen. Euh, ci seen émission jotaayu xam-xam ñu ànd ceeg Seydina Ousmane euh, balay waxtu wi di jeex rek incha allah képp ku bëgg a àddu rek mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 81 08 Seydina. waaw xanaa di ko wax ne bu fekkee day fajloo rek mën naa jokkoo ak waa Kër Nasru Minallahi incha allah wala bu ñëwee fii ci rajo bi euh, laaj ci madame Fall bu soobee suñu borom waa Kër Nasru Minallahi danañ ko taxawu. ci garab yooyu nga xam ne rek moom lay yittewoo loolu tamit day solo ndax léeg-léeg doomu aadama am feebar waaye du xam fan lay jaar ba mën a faju kon xam naa fa Fallou lañ doon wax ci e, wàllum mm, liggéey kuñ liggéey ni mu def ci moom ak e, lan moo war a sax doomu aadama dem bay liggéeyante seen biir loolu lépp day delluwaat ci xolob kañaan kañaan goo xam ne dafa am nit ki léeg-léeg nga gis mu am loo amul nga soxoree ko loola e, bëgg mu jugee fa mu nekkoon bëgg mu jugee fa mu nekkoon kon xalaa ku laal doomu aadama war na di fexe ba porté si boppam bañ lu jóg rek dal ci kawam kiñ liggéey nag euh, naka lay def ba liggéey booba mën a mën a toj am na si loo xam ne li ñuy wax saar c'est universel la ku ko jëfandikoo yàlla saa borom subhanahu wa taala mën naa dindi liggéey booba waaye am na si ñoo xam ne nag la ñuy jëfandikoo moom ala kulli haal il faut nga xam seen tur xam seen tur waajur jigéen waaye itam Euh, lijjanti ba xam bis bañ ko def wala bis ba nga xam ne ni ñoom la yëkkatoon seen téléphone di woote ngir seetlu wala bis ba nga xam ne nii moom lañ ñëw ci ki nga xam ne ni moom lañ am ci moom yaakaar ne ko dama bëgg nga ñaanal ma so boobaa itam loola am solo ndax euh, nekku ne rek na ñëpp ñoo war a jëfandikoo léegi seen résultat parce que dafa am si ñoo xam ne fañ leen dugal moo tax comme xam nga maa ngi koy wax barki démb ma ne la am na si ñoo xam ne nii dañ leen liggéey waaye ci potu meew lañ ko def ci potu meew lañ ko def tëcc tëcc rek ba mokk sànni ko ci kaw tali wala suul ko ci bàmmeel wala lu ni mel léegi nag xalaakulaal nit ki ci boppam ab ab ab ab bakkanam dafa woyful kon waru ko woyofal ab ci boppam woyful waru ko woyofal benn mu sangu wala mu naan wala mu takk léegi nag nit ki nga xam ne itam dañ koo liggéey yi la waxoon dafa bokk ci ni mu mën a mën a manifesté am na ko xam ne buñ ko liggéeyee def ko ci pegg sawara ab xolam du neex mën na changé jikkoom mën na changé communication nam daa waxee da gis ne koo xam ne tey day dikk rek nga naa ko yow xanaa dangaa am lool laal fekk laalu dara waaye dañu ko laal loolu itam day am ci doomu aadama yi kon doomu aadama yi war nañu mën a fexe ba yu ni mel incha allah ñu mën ci mucc. salaamaaleykum asalaamaaleykum salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Eh, eh. soxna si ñu ngi lay jaar.

ñu ànd ak yéen seen émission jotaayu xam-xam euh, ànd ceeg Seydina Ousmane Sourang di leen jox xam-xam ba ngeen mën koo jëfandikoo te du leen gaañ kon yéen ñi nga xamante ni bëgg ngeen a àddu ci émission bi ngeen bëgg ku leen seetal ku leen firil seen ay gént euh, ku leen xoolal seen ay rawaan waaye itam ku leen xoolal seen ay sarax mën ngeen a jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 wala ngeen jaar ci 88 628 19 05. 88 628 19 05 xam naa nag ne suuti rek incha allah dañu daal di yëkkati li nga xamante moo di jotaay bi kon képp koo xamante ne rek yaa ngi dégg mën nga addu ci 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ko defee incha allah ñu ànd ak yéen seen émission jotaayu xam-xam ànd ci ak Seydina Ousmane euh, Seydina dafa mel ni point bi nga nekkoon am na solo de. Mm-hmm. waaw point boobu moom. Mm-hmm. Euh, xam naa nga ñëw ci leeral ko gars rek bala ñuy yëkkate jotaay bi. Mm-hmm. waaye itam gars mën nañuy wéy di ànd ak ñun ci bu ko defee rek incha allah képp ku bëgg a àddu ñu ànd ak yow ci émission euh, jotaayu xam-xam. ba léegi rek comme li ñu wax ci cadre liggéey liggéey bi yaatu na waaye am na si ñoo xam ne ni ñoom ñooy am ñoo xam ne nii euh, seen borom kër da leen di yor ñu dem ba ci biir mu takk beneen soxna ndeysaan xolu firaa ngi jàpp leen ñoom itam ñu dem di ko liggéey liggéey boobu nag man na mën na mën na mën na yàq lu bëree bëri am na si ñoo xam ne la ñuy liggéey lu mooy man daal sama borom kër ba mu takkee ñaareel ba léegi fonkatuma daf maa sàgganeel dama bëgg nga defal ma loo xam ne nii day tax ñu bëgg ma am na ñoo xam ne nii nag danaan ko damaa bëgg nga defal ma loo xam ne daal bu demee ci aaw ba du man dara loolu itam day am ci ñi nga xam ne ni mooy soxna yi mhm. asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum rahmatulah. ñu ngi lay ziar baax kilifa gi. allo ku baax. waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, ñu ngi leen ziar baax. ñu ngi delloo ziar ok na ko saa yàlla yàlla na ko ziar. réseau bi nag dafa xaw a naqari. réseau bi waaw réseau bi moom dafa xaw a naqari. tur bi la. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa xam naa di ko wax bu fekkee dafa yor écouteur na tekki écouteur yi ndax ñu déggante. takkuma écouteur de takkuma écouteur de. waaye yokk sa wërëm tuuti rek. tur bi nan la sëñ bi. Euh, waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam ma ne tur nan la ak fooy wootee. allo allo oui. da ko bàyyi mu dem ñëwaat. ma ne tur bi nan la ak fooy wootee. Mamadou moo la. Mamadou Dangoura. Mamadou Dangoura loo bëggoon. Mamadou Dangoura. Mamadou Dangoura loo bëggoon da nga bëggoon ku la seetal. ay dégguma leen bu baax wala da nga koy bàyyi mu dem ñëwaat bu ko defee. ma ne da bëgg ku la seetal wala. waaw waaw waaw maa ngi dégg moo xool waaw. barakalla Mamadou Dangoro Mamadou euh, mim 40 mim euh, Mamadou Dangoro Mamadou li jiitu seen mbir bu ne wàllum tabixa bi mu ngi nekk naar yu mooy ak leer leer la waaye biddiw ba mu nga tudd Samsu moom bisub dimanche la moomee Mamadou yaa ngi may dégg bu baax Mamadou Mamadou dafa mel ne déggantiwuñ de allo. waaw ah, maa dégg waaw maa lay dégg. dégg mën nga wax. moom Mamadou Dangoro la jiitu say mbir rek wa waaw kay Mamadou Dangoro la jiitu say mbir mu ni wàllum tabixa bi mi ngi nekk li nga xam ne mooy naar yu ak leer waaye biddiw bi mu nga tudd Samsu da wax na la Samsu moom bi sub dimanche la moomee dimanche bu ci ne biddiw ba day xëy génn 7 ci suba gi dugg 8 heures génnaat 14 heures dugg 15 heures génnaat 21 heures dugg moom Mamadou Dangoor da lay wax nag bu fekkee tey jii si alxames ji sa biddiw bi nga xam ne ni moo tuddoon samsu génn na waaye dafa xaw a teel a génn ndax 9h la génn ba mu génnee 9h mu ngi dugg 10h ak génnaat dugg 17h kon incha allah bi dama naan sànq rek la dugg. ndax 23h ci la génnoon ba mu génnee 23h mi ngi dugg 0h waaye suba ci fajar gi 6h lay génn su génnee 6h mi ngi dugg 7h mu ne kon biddiw yi heure yi ñu wax la rek saa yu génnee loo xam ne nekkoon sa yitte incha allah boo ta andona ñaan yàlla saa baram subhanahu wa taala mën na barkeel mën na la ci defal lu koy njort lool par rapport ak heure yi nga xam ne nii danga daa jóg di ñaan te doo xam fu yëfi toll mu ne bu nekkee nag sa poids mystique maanaam li xam ne ni mooy limu tur bi mi ngi toll ci 92 92 mooy limu tur bi waaye boo jëlee tur bi ak sant bi euh, dangura mhm, dangura dalay jox 316 kon moom itam macha allah lim bu baax la 300 16 lay jox 316 boo ko wàcc woon mooy tam ab delluwaay bu am solo lay jox ndax da joxaat chiffre 10 10 nga dindi zéro ba mu taxaw 1. Mamadou Dangoro loo góorgóorlu rek incha allah bi say mbir dana gën a jëm kanam waaye jamono bi ñu toll nag bunt yi dafa mel ni lu tëju te xamagoo fan ma koy tëji bunt bi jamono ñu toll daal dafa dafa dafa mel ni lu tëju maanaam jaaxle gi bëri na sa yaram trop trop trop. waaw jaaxle gi bëri na sa yaram trop. Euh, sëriñ bi utal ginaar. Euh, boo mënoon a am ginaar xam naa genn ginaar gu xonq lay doon nga jël ginaar googa nga wut benn bool nga dugal ci ginaar gi sang ginaar gi sotti ci ndox ba nga xam ne nii euh, ginaar gi tooy na nga jël sangin moom yow si jëmm nga sangoo ko incha boo ko sangoo ba pare nga jël euh, ginaar gi nga saraxe ko soo ko defee yaram bi dana am changement soo ko defee na nga door a wullu ay ñaan bu soobee suñu borom boo ko defee yàlla mën na def tawféex bu baax ba lépp loo doon jàmbar rek mu am changement. Ah, mu mel ni euh, Mamadou euh, rëcc na moom Mamadou Dangoura euh, ba tey mën na jaaraat ci 88 628 19 05 88 628 19 05 waaye itam ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy bàyyi xel seen émission jotaayu xam-xam mën ngeen a jaar itam ci 88 628. 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah euh, bala ñuy yëkkati jotaay bi yow mi nga xamante yaa ngi ñu te bëgg ku la seetal ku la firil sa gént ku la xoolal say rawaan waaye itam ku la xoolal euh, yan sarax nga war a def euh, ku lay xoolal ci tukki bi nga xamante yaa ngi ci dugg waaye itam yow mi nga xamante ni da ngay sanc kër bëgg ñu xoolal la kër gi yow mi jënd oto wala ngay jënd kër lu mu ci mënti doon rek incha allah boo wootee bëgg ku la ci seetal Seydina ne la 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek yow mi nga xamante ni saa su nekk rek yaa ngi ñu bàyyi xel wala yow mi nga xamante ni itam yaa ngi doog di dab ci seen émission jotaayu xam-xam euh, muy am fii ci rajo Baol Média FM nekk fii ci Mbacke Tableau Thiaby xàll bi jëm Touba euh, yow mi nga xamante ni da nga bëgg a àddu mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 asalaamaaleykum Euh, mu mel nii rëccaat na ba tey mën nga tenter jaaraat ci 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 asalaamaaleykum euh, mu mel ni rëccaat na ba tey mën na jaaraat ci 88 628 81 08.

ba tey rëccaat na mu mel ni euh, problème mu réseau la. Mhm. ba tax euh, képp koo xamante ni rek euh, bëgg nga addu mën nga insister ci ñaari numéro yi nga xamante ni mu ngi lay jox boo tenté ci 88 628 19 05 bu jàllul itam mën nga jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah.

81 08 bu ko defee rek ñu ànd ak yéen seen émission jotaayu xam-xam ñu ciy waxtaanee xam-xam waaye itam sukkandiku ci mbindum sunu borom subhaana wa taala kon yow mi nga xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel nga bëgg ku la seetal ku la firil say gént waaye itam ku la xoolal say rawaan ku la xoolal yenn sarax nga war a génne waaye itam ku la xoolal ci tukki bi nga xamante ni yaa ngi koy def wala yow mi nga xamante ni itam da nga bëgg ku la euh, xoolal ci euh, sa biir kër wala sa ay euh, bërëb bi nga xamante ni yaa ngi ci yëngu di ci liggéey ndax nekk ci bërëb euh, liggéey ba du dox nga jàpp ne ci yow la fekk ci bërëb bi nga xamante ni ci nga nekk la ba tax saa su nekk rek ñu lay jox numéro bi ngir bëgg nga dugg leerlu ci lu mel noonu ci 88 628 81 08 88 628 81 08 wala ngeen jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ko defee rek incha allah ñu ànd ak Seydina Ousmane Sourang seen émission jotaayu xam-xam xam naa ba la ñuy yëkkati jotaay bi rek kenn ku nekk ci yéen bu bëggee àddu mën a daal dugg ci li nga xamante ni moo di euh, émission bi euh, ndax nee naa la Seydina Ousmane Sourang macha allah borom xam-xam la sunu borom moo ko ko jox waaye itam mu ciy laabire jaam ñi ba tax saa su nekk rek mu lay jox xam-xam ba nga mën koo jëfandikoo te du la gaañ euh, Seydina nekkoon ci point bu am solo boo xamante ni mu ngi ko doon développé te jàpp naa ne am na ni jamono ñu ngi ciy jariñu muy li nga xamante ni moo di liggéey euh, mu doon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xamante ni euh, fànn liggéey yi nga xamante ni am na euh, ak ñun ñi fi ñuy jaar ndax wax naa ko léegi sama ay question yu njëkk muy ñi nga xamante ni saa su nekk rek dañ leen dañuy leen di tere Euh, comme des fois ñu ne ah jigéen gi del sol lu jot sinon boo ko solul euh, dara mën na la dugg euh, bu ko defee comme rap mën na la dugg wala mën nga jummi wala nit ki nay fàggu ay yéreem di ko denc wala nit ki ay dàllam wala ay tibb tànk ak yu demee noonu mm-hmm. mu mel ni dafa bëri ay anam yoo xamante ni nit ki kat mën na cee liggéey doomu aadama bi ba nga xamante ni mën na ci jëlee ay feebar ci sa biir wax itam ñu ngi dégg nga ne liggéey nit yombul te dañuy faral di dégg ay kàddu naan ah kii kat dañ koo liggéey diw mii kat ko jàpp Euh, yan yan nit nit ñi yan euh, matukaay lañu war a jël ci loolu ba nga xamante ni donte ni mënul ñàkk waaye mu raar lool ci jaam ñi parce que li muy indi ay jafe-jafe ci nit ki bari na lool ndax am na ci ñoo xamante jamono ji ñu ngi ci mbedd mi euh, di tàggoog seen xel mu mhm. nekk ay liggéey yoo xamante mu am ñoo xamante ni mënatuñoo dem fenn ñu ngi seen biir kër ndax liggéey buñ leen def am ñoo xamante ni duñ jóg ci lalu hôpital ndax feebar yuñ leen def am ñoo xamante ni fu ñu toll ñu ngi dox ndax feebar ndax liggéey yuñ def seen yaram mu mel ay jafe yi muy indi bari na trop yan euh, euh, matukaay nga mën a jox jaam ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel pour ñu man koy jël saa su nekk ba yu mel noonu ñu mën ci di mucc. macha allah lu am solo ngay laaj xam naa dina yow soxna Ami Tall moo fii ci Darou Salaam moom de ba ñuy bàyyi xel nit ki dafa war a fexe ba fagu boo fagoo rek yu bëri mën na la bañ a dal comme li ma wax léegi na la am na si ñoo xam ne ni tey ñoom seen soxna ñoo leen liggéey dangay dem takk euh, ñaari soxna da ngay yor benn soxna ci ëllëg si nga dem takk keneen soxna si ñëw ni la dama bëgg nga defal ma loo xam ne nii sama borom kër daf may gën a bëgg kooku ab liggéey la kooka liggéey la waaye liggéey ñoo bokkul parce que luy boole lañ ko def loo xam ne nii tasxir maanaam dañuy wax noob loolu lañ ko def léeg-léeg nit ki dem ci nit ne ko dama bëgg nga defal ma loo xam ne ni sama borom kër daf may gën a bëgg waaye moom contraire mooy am du gën a borom këram du ko gën a bëgg waaye moom si jëmmam mooy gën a bëgg borom këram ndax nañ ko nañ ko liggéey lañ ca def la léegi la itam ndeysaan nga gis koo xam ne nii day dem ci ab sëriñ ne ko dama bëgg nga liggéey mu diw sàngam mu dof wala mu dee wala yasibillah nga xam ne euh, kooka xamut lan lañ ko bootee xamul gan ñaan waaye day tëb tëb dugg ci kooka sëriñ boobu mooy mujj am problème day mujj dem sax ba di xuloo client booba waaye lan la coodu mën a jub ci kaw ñoom ci suuf la ñuy wax lan la kañ bëgg a liggéey kooka dafa fekkee ne am na ñaanu kilifa wala dafa fekkee ne moom waajal na boppam. doomu aadama saa yoo jógee ne maa ngi liggéeylu nit nit kooka saa yu ñu ko liggéeyee wala yow ma jóg di liggéeylu nit lan moo tax nga koy liggéeylu. dafa nekk ci kër gi mayulu jàmm wala dafa nekk ci kër gi nga soxaree ko kër gi walla yow sa borom kër nga soxaree ñaaral bi nga xam ne ni moom la tàgg ba tax nga ne ko dëddle ma dëddle ko ak diw sàngam léeg-léeg euh, keroog maa la koy junj naan la danga gis ko dem ci euh, dem ci ab sëriñ ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ci diggante diw sàngam ak diw sàngam ñu taqalikoo ne sama doom la dafa dugg ci diw te neexuma fekk ni du doomam waaye ab wujjum la nga xàjji la séparé loo xam ne ni wala si bila bu ëllëgee bàkkaar moo la ci fet nit ñi nag euh, ni ñu leen liggéeye am na ci ñoo xam am na koo xam ne nii tey ma ngi ñu ngi naan ko rab moo la jàpp ñii ñu ngi ko cat euh, moo la jàpp fekk ne la ko la ko jàpp lépp liggéey la boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci soxnaam ndax takk na ñaareel dem na bay aayal gaafa ñaareel ba saa yu ma demee ci sama ñaare bi du ci man dara waaye saa yu ma demee ci aaw bi dama yëg man góor laa fekk ne aaw ba moo koy fiiri ak ñaareel ba def loo xam ne nii saa yooyu demee ci ñaareel bi du man dara contraire bi itam day am nga gis koo xam ne nii ndeysaan da danga koy takk mu ñëw waaye nag bu ñëwee da nga koy may lu bari mu fa fa bëgg jël lépp dem ba bëgg laa xeñ sa njaboot gi ci biir kër gi moom itam daal di lay liggéey liggéey boo xam ne nii sa njaboot ci biir kër gi doo amata ñoom jàmm la bëgg mooy loo am jox ko loo xam wax ko loola itam saa yu demee ba am xamaa na ñu nga commencé jekku nit saa yu demee ba am loo yëg ci sa yaram te daaw ko yëg xamal ne mbir am na ca su fekkee ne liggéey la bàyyil xel ci la ma la waxoon bu njëkk su fekkee ne rab la bàyyil xel ci la ma waxoon démb wala bërki démb ci euh, walla rab ak la ci su fekkee ne cat la nag bàyyil xel tey lu nu mel cat moom daanaka day tëj nit ki day tëj nit ki ba xam ne nii dañ koy dikk du am comme la ma la waxoon ne la foofu nag dafa ay sew-sew xalaa kulli dafa xalaa kulli dafa am yoo xam ne daal euh, nit ki da koy xool ba xam dëgg-dëgg lan la waaye cat day yàqal ki rab day yàqal ki waaye itam nit ki buñ ko liggéeyee dootu am jàmm dana ñëw ci kër gi di def ak nit ñi noo xam ne ni da xam ne kii lu diw sàng mañ xamoon démb moo nekk nii ni muy doxee du noonu dana dem ci marché ba sax di wax loo xam ne nag su du noonu fekk na xel ma ci boppam lañ jaxase ndax nit ka ngay liggéey lan moo tax nga koy liggéey ak boo ko liggéey pare fa nga koy def dama naan la sëf nit yomb na liggéey luy boole ñaar nit yomb na waaye liggéey dëggi dëggi nit mu doof wala mu bàyyi ab liggéeyam wala mu yàqule loola ñenn ñoo ko gën a mën mooy ñi nga xam ne ne ragaluñ yàlla am na ñoo xam ne tey bu ñu la xoolee nga am kaaraange ta ragul dara yàlla ñu fay leen financé leen su boobaa ba leen laa liggéey dañuy ut àllawee xànjar bind ci sa tur yàq la maanaam ba nga yàqu yaxeet ñu door laa jekkali kon ndekente nit ñi nañu wut kaaraange li ngay laaj nag ndeysaan daanaka day delluwaat ci li ma doon wax rek muy nit ñi saa yu leen liggéeyee danañ am changement yoo xam ne day am ci ñoom liggéey daal li ëpp lu muy def ci nit ki mooy yaram buy diis mooy tayal wala barab ba nga xam ne nii mooy barab liggéeyukaayam wala kër ga wala soxna sax nga xam ne nii moom la takk saa yu fa bëggee dem day gis beneen changement boo xam ne nii bokkut ak na meloon foofu itam léegi-léegi dana xaw a niru ak rab waaye bokkuñ wax naa la ko démb ak barki démb yaakaar naa ñiy déglu loolu leer na si ñoom euh, am na solo ba tey rek dañuy daal di woy di joxe numéro yi euh, xam naa réseau bi moom moo am ay bang bang waaye lu ci mën dem rek euh, nañuy tenté

Euh, ku la firil sa gént waaye itam ku la defal ay ñaan ay muslaay yow mi nga xamante ni itam da nga bëgg ku la xool say rawan mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala nga jaar ci 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah ñu ànd ak yéen euh, seen émission jotaayu xam-xam nee naa la duñu ci waxtaane leen lu lulul xam-xam waaye mm-hmm. itam sukkandiku ci mbindum sunu borom subhaanahu wa taala euh, comme ni ma koy faral di waxee rek sunu borom moo ñu sàkk ñun ñëpp waaye itam di jël ay jafe-jafe di ko teg jaam bi te képp ko mu teg jafe-jafe rek euh, xam na ne attan nga ko moo tax mu teg la ko ndax damay faral di dégg ñu naan suñu borom du teg kenn lu mu attanul kon lépp lu mu teg jaam bi rek xam na ne attan ko waaye itam indil na la ay solution yoo xamante ni doo toog fi nga toog rek euh, di xaar mu ñëw euh, dafay am solo yow itam ngay jog di def say gëstu ngir am lu mel noonu ba tax saa su nekk rek rajo Baol Média FM 88 point 5 nekk fii ci Mbacke Tableau Thiaby xàll ba jëm Touba indi leen ay émission yu am solo yoo xamante ni duñ ci waxtaan leen lu xam-xam jariñ mbokki auditeur auditrice su Baol Média ba tax saa su nekk rek yow mi nga xamante ni yaa ngi ñuy déglu jamono ji ci seen émission jotaayu xam-xam nga bëgg ku la seetal ku la firil sa ay gént euh, wala itam ku la xoolal sa ay rawaan ku la xool sa biddi wala yan euh, sarax nga war di def wala yow mi nga xamante ni sax jamono ji yaa ngi waaj ab tukki nga bëgg a xool ba xam tukki bi euh, baax na wala baaxul heure bi nga ko bëgg jël baax na wala bés ba nga war a dem baax na wala baaxul yow mi nga xamante ni yaa ngi sa biir kër bëgg ay muslaay ci biir kër gi doom yi comme koy faral di waxee rek mu jël yoonu njubadi nga bëgg ko ci defal ay muslaay yu mucc ayib ba nga xamante ne dina nekk euh, bi nga xamante moo gën waaye itam mi nga euh, euh, a sangate bërëb bi mhm. a ngi ñu bàyyi xel itam ngeen di seetlu ci seen bërëb yi di ba xam bërëb bi baax na fi mu nekk baax na wala déet wala bërëb bi ñaan la soxla yan muslaay bu ko defee saa su nekk rek ngeen di jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah ñu ànd ak Seydina euh, mi nga xamante ni jamono ji euh, mu ngi nii toog di xaar ngeen woote mu defal leen euh, ay ñaan yu mucc ayib kon saa su nekk rek mën ngeen dend ak ñun bala ñu daal di yëkkate jataay bi ndax ne naa leen waxtu bi nga xamante ni ci la ñu war a na yëkkate jataay bi mën naa ne 4 minutes maanaam ñeenti minutes daal moo ci des kon yow mi ñuy déglu mën nga profité profito bu ko defee rek Seydina xoolal la say mbir ñu daal di yëkkati li nga xamante moo di jotaay bi waaye ci loolu rek dañuy daal di bàyyi ki nga xam moo di Seydina mu xoolal leen euh, mu indiwaat euh, ba nit ñuy euh, àndaat ak yéen ci beneen émission bu ko defee rek saa su nekk noonu lay émission bi demee kon Seydina dañ lay daal di bàyyi rek nga indil gaa yi loo di baaxee ci ay muslaay yu demee noonu bu ko defee rek ñu daal di tàggatoo ak ñoom waaye itam ci jamono 05 wala 88 628 81 08. macha allah jërëjëf Cheikh Mahamadou Fadal xam naa li ñuy joxe euh, dama xamul lu jëm ci wàllum rab lañu war a joxe wala lu jëm ci luy toj liggéey wala lu jëm ci wala lu jëm ci waaw. dara neex nag kenn woote ne lu jëm ci nangam daal nañ gën a soxla ndax comme ni nga ko waxee rek waxtu wu ne saa su ne ñun liy gën a li ñuy gën a soxal mooy. nit ñi di woote di tànn li nga xam ne rek moom la ñu bëgg ñu koy waxtaanee walla yi nga xam ne ne dañoo bëgg ñu leen ko jox incha allah rabi ñu mën a jaar ci 88 628 19 05. damay joxe rek kuy daanu rab kuy daanu rab wutal euh, deru <laughs> te ma bàyyi xool beneen ndax bii daa mel ne day xaw a day xaw a day xaw a day xaw a yéeme loolaal naa joxe tànk yu métti waaw tànk yu métti ndeysaan sama xel dem si sama jarbaat maa ngi leen di ziara jëral <laughs> tànk yu métti. da nga koy méttee wutal sungufu nepp nepp ak lay duur jaxase ko sungufu nepp nepp ak lay duur nga jaxase ko ak karité def ko euh, li nga xam ne mooy pommade incha di ko diw ci tànk su ko defee rek yàlla saa borom saa taala ko saafara su fekkee dafa def li ñuy wax niwi wutal la xob bi euh, xob bi bul def ko sunguf jël kuddu gu ndaw def ko def ko ci ndox ba tàng incha bi nga koy ko ci diw wala li nga xam ne ni mooy xob bi paftan soo téyee xobi paftaan nga wut ndox nuggal ko ba mu nugg nga jël xobi paftaan ya dugal ko ca su ko defee nag jël xob yooya di ko raaj ci sa tànk di bomb muy wàcc incha allah bi lii itam lu ci lu ci lu ci baax lool kon loolu lépp bokk na ci li nga xam ne luy jëriñ doomu aadama la 88 628 19 05 asalaamaaleykum maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay ziar wala sëñ bi waaw ah, delloo ziar rek ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi alhamdulilah baa yaa ngi si jàmm bu baax a baax sant yàlla bu baax kay waaw rikàlla sëñ bi tur la Fallou Fall. Fallou Fall. waaw damaa bëggoon mu xoola ma. Fallou Fall da nga bëggoon ñu seetal la. waaw. Aco Seydina seetalal Fallou Fall dafa bëggoon ko seetal. Mhm. Mhm. Fallou Fall sëñ Fallou Fallou Fall lu jiitu sëñ mbir rek mu ni wàllum tabixa bi mi ngi nekk tura bi mooy suuf. suuf moo nekk tabixa bi waaye itam Cheikh du Fadal biddiw bi mi ngi tudd soxal. Hmm. sowal moom gaaw moome moomee alhamdulilah kon gaaw moo la gën a jubbu ci bis yi lépp loo xam ne yaa ngi koy defe rek mën nga tànn bisub gaaw waaw eh, bisub gaaw da lay wax ne la biddiw bi day xëy génn 7 heures dugg 8 génn 14 heures dugg 15 heures génnaat 21 heures dugg 22 heures hmm. waaye sëñ Fall sa biddiw boobu nga xam ne mooy tudd soxal tey jii ci alxames génnoon na waaye dafa xawoon a naaje ndax ma nga génnoon waxtu 13 daa yéex a dugg moo tax mu naaje génn maam mu génnee 13h ngi dugg 14h génnaat li nga xam ne mooy 20h dugg 21h war na génnaat fajar mooy 3h du matin. Mhm. incha allah bu génnee 3h du matin ngi dugg 4h sañ fàllu rëcc na waaye ñu ngi koy xaar ne waat di ko digal rek muur gura saraxe ko incha allah. mel ni sëñ Fallou rëcc na ba tey euh, sëñ Fallou mën nga jaaraat ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala nga jaaraat ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek yéen ñi nga xamante ni jamono ci yéen a ngi ñu bàyyi xel te ba ku seetaan mën ngeen jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05. wala ngeen jaar ci 88 bala ñuy daal yëkkati jataay bi euh, képp koo xamante ni àddu nga allah la seetal euh, Seydina nga nekkoon ci point bu am solo dañ ko jox ñi nga xamante ni bàyyi xel euh, ñu daal lay bàyyi nga continuer ci point bi nga xamante ci nga nekkoon. waaw comme fi mu mujj daal rek mooy koo xam ne itam tànkam day métti mën na wut li nga xam ne mooy. xobi paftan su ko defee incha allah du ndox nuggal ko ba mu nugg mu jël xobi paftan yi doolu ko ci biir waaye itam jël tànk ya eh, jël xob ya di ko ragg ci tànk ya muy wàcc incha allah su ko neexee nag eh, mu tàngal ndox ba mu tàng mu jël karité diw ko ci li nga ne mooy xobi paftan ya su ko nuggalee eh, ba mu nugg mu def ko ca waaye di ko bombe ay tànkam loolu tam macha allah baax na ci li nga xam ne mooy tànk yu métti tànk yu métti nag ñaar la dafa am ci yoo xam ne ni jog gi liggéey am ci yoo xam ne da ngay xëy suba teel joggi tànki kanaara am na ci ñoo xam ne nii ndoxam siti muy wàcc la am na ci ñoo xam ne nii émurit moo leen ko moo leen ko moo leen ko teg waaye lu ci mëntaam lii incha allah rabi da koy saafara bu ko saafara nag tawat ya nga xam ne moo nekk ci gannaawam da ngay dem nga jéem koo faje ndax yàlla su baram subhanahu wa taala man la ci defal ah, tawfeex bu baax mais bu ñu wax rek nit ki lii mooy faj tànk ya mu faj ko mu tare mu bàyyi ko bu ëllëgee day ñëwaat moo tax xalaa laal daal lañu fexe bay faj la nga xam ne mooy nekk ci gannaaw tànk ya xam naa kon sëñ Fall li nga ko wax war a day mel ni waxtu moom ma ngay xotti jëm si jeex te fajar lañ fi war a ñëwaat incha allah bii ñu bàyyi kenn wala ñaar am na lu ñu leen diggoon nag xam naa euh, jotuñ ci ñëw fajar bu soobee suñu borom dana ci ñëw muy li ñuy wax dimba dimba ak lenn ci ay njariñam yoo xam ne nii euh, lu am solo la ñu mën cee décorté lu yaatu bu suñu borom fajar bàyyi lañ ko incha allah rabbi danañ si ñëw gën ko yaatal baax suñu fàllu Euh, jërëjëf Seydina euh, comme ni nga ko waxee rek euh, waxtu wa day daal di mat sëkk ci rajo Baol Média FM seen mission jotaayu xam-xam la woon kon nañu jël kooku asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax. suñu fàllu moo dellu. suñu si waat. waaw. acoo Seydina sëñ Fallou moo del siwaat hmm, sëñ Fallou comme li ma daanal rek wutal góor nga di ko saraxe boo mënee am nag góor gu weex ak gu xonq nga jaxase ko incha allah rabbi nga di ko faral di saraxe dana dana dana dana baax ci yow waaw góor gu nag euh, ñett baax na juróom-ñaar baax na ñett baax na juróom-ñaar baax na mën nga ko def sax mu nekk sab sarax bu soobee suñu borom yaram dana gën a ndax dañuy gis ne wàllum cat rek laa gis ci say gàllankoor am na ci loo xam ne ci yow la sañ fàllu ndax léegi léeg ndeysaan da ngay bëgg dara waaye doo nangoo def dara loolu léeg-léeg dana waral wërsëg wi di euh, xaw di gàllankooru waaye boo mënee am góorgóorlu daal di ko sarax incha allah yàlla mën na saafara bu baax a baax xam naa moo xaar ma xaw a xaw a jëkk kasndiko xuus bu baax ci mbir yi ndax euh, sëñ Fallou damay jël tur bi mu jox ma 200 euh, jamono bi tembe ban biddiw moo taxaw biddiw minuit 37 biddiw bi ñuy wax soxoratu moo taxaw ma laal ci tuuti demaat ci 900 demaat ci kon day mel ni sax euh, biddiw bi ñuy wax soxoratu ak juma ji duggoon alhamdulilah. Euh, sëñ Fallou. waaw tey ngaa def cangat. waaw. cangat moo lay génne fi nga nekk ak suura suuraay. waaw maanaam suuru ak cangataal boo ko defee. waaw yaram bi mën na am changement de parce que jamono bii yaram bi mi ngi diis te yaakaar je mi ngi tas te li nga yor itam du taxaw ci loxo bi. waaw loolu lu wér la. waaw ñett yi daal fi mu moom. il faut ah, ñu jàppale. ñu la ci. tàngat ah, bi yow. waaw bu la neexee ñu jox la bu la neexee itam nga am jot ñëw fi yaay xool loolu ci gën a jub rek. am nga ah, foo ñëw fi hmm? boo ñu joxee ñu jëli na. waaw am nga foo bindee. bind waaw. waaw jëlal jëlal jëlal nga bind. Eh, dangay bind bisimilah rahmaani rahiim jeex nga teg ci alam nasara. alam nasara soixante-dix nga koy bind juróom-ñaar fukki yoon soo paree nga bindaat beneen faatiha maanaam ñetti faate yoo xam ne nii bu ngun ngaan la doon bu góor ak bu jigéen boo xam ne bu njëkk bi dañ koy bind sàdd ko tomb ko maas ko bu ñaaree bi dañ koy bind sàdd ko mu mel ni euh, sëñ Fallou rëccaat na euh, sëñ Fallou ba tey mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 ba tey yéen ñi ñu bàyyi xel xam naa ne waxtu wi moom daanaka mën nañ ne jot na. waaye ci euh, ndimbalal euh, suñu borom subhaanahu wa taala rek saa su nekk di am mbégte rek di ànd ak yéen ci 88 628 19 05 88 628 19 05 ñu jël ko asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mu mel ni déggante bi neexul mm-hmm. euh, asalaamaaleykum mu mel ni dégguñu xam naa jombul ne mu jaaraat ci 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ko defee rek incha allah Euh, boo duggee dinañ la seetal bala ñuy daal di yëkkati li nga xamante ni moo di jataay bi 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ko defee ñu jël la asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kilifa gi ñu ngi lay ziar baax a baax. ñu ngi doon la ziar bu baax sëñ Gara. tur bi nan laa fooy wootee. Moodu Ba laa tudd di wootee Touba Xayra. Moodu Bagaas. Moodu Ba. Moodu Ba di wootee Touba Xayra. waaw suñ Moodu loo bëggoon. damaa bëggoon ku ma seetal. sëñ mu dafa bëggoon ko seetal moom moom Modou Ba. mu ngi mhm. dëkk fële ca Touba. Mhm. Euh, di bëggoon ko seetal Seydina. baarakalla sëñ Modou pël bu gàll wala pël bu gàll wul la. pël bu gàll. ëpp la. pël bu gàll. kon nañ la xoolal gaaw balaa kër di bee kii. ak bisimilah. waaw jàppoon dégg nga pël sax ma naan odu mbadda ak mbadda liggéey nu gàll waneeg yooyu. waaw yooyu de moom xam naa du ci for nag. Euh. <laughs> barakallaa sëñ Modou Modou Ba sëñ Modou li jiitu sëñ bi rek mu ni wàllum tabixa bi mi ngi nekk ma mu ngi nekk naar yu mooy ak leer uh-huh. ak leer la waaye sëñ Modou biddiw ba ma ngi tudd Samsu moom bisub dimanche la moomee uh-huh. alhamdu dimanche moo la gën a jubal ci bis kon lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek su la neexee mën nga tànn bisub dimanche uh-huh. dalay wax ne dimanche boobu nag biddiw bi day xëy génn 7 heures dugg 8 heures génn 14 heures dugg 15 heures génnaat 21 heures dugg waaye su nekkee euh, suba ci aljuma ji sa biddiw bi sañ Moodu moom itam mi ngi war a génn wala lu jiitu suba sax euh, tey jii ci guddi gi la ci des euh, mi ngi war a génn nga baal ma tuddi ma xool mi ngi war a génn fajar fajar la war a génn 6 bu génnee 6 heures mi ngi dugg 7 heures waaye bu demee ba 13 heures mi ngi génn dugg 14 bu demee ba waxtu 20 heures ci guddi mu génnaat muy suba ci aljuma ji génn 20 heures dugg 21 heures dalay wax ne heure yi daal saa yoo taane di si ñaan yàlla saa borom subhanahu wa taala mën na barkeel mën na la defal lu kawe njott lool uh-huh. yaakaar di nga xam ne léegi-léegi da nga ko am mu récité mën na wàññeeku waaye sëñ Moodu uh-huh. jàmbaar nga am na xarañteef waaye danga desee gëm sa bopp nga baal ma uh-huh. waaw da nga desee gëm sa bopp maanaam dëggu gi nga war dëggu ni pour nga dem dangay dem ba ci biir ngay ragal te yow waroo nekk nit ko ragal ñaare pour boo ragalee pour nga dem dana jafe ci yow te itam bul bàyyi xel ku la bàyyi xel ni yow yaa war di dimbale Uh-huh. waaw saa yow bàyyi xel ne yaa war dimbal rek insha allah bi dangay dem ci kanam. Uh-huh. Uh, su fekkee nag mën nga bind wala nga bindalu li nga xam ne ni mooy tabar ya daa uh-huh. nga bind ko uh, moodu cinquante kon su boobaa da koy bind tabat ya daa juróom-ñaari yoon. da ngay bind tabat ya juróom-ñaari yoon soo bindee ba pare nga boole ko uh, sungu fa ñett ñetti ñetti sungu baax na ñetti sungu yu bokkul. nga boole ko moom incha allah rabbi nga tàngal ko tàng nga sangu si diiram ñetti fan wala juróom-ñaari fan. soo ko defee yàlla saa borom subhaanahu wa mën na gën a ubbi bunt yi waaye nag boo ci mënee boole di liggéey basmala muy bisimillahi rahmaani rahim yi nga koy ah. liggéey 111 wala koy def 313 par jour. Hmm? danaa ko def 313 par jour dama. ak saa ak saa. baax koy def. Hmm. waaw góor sa mbir la. Ah. soo koy def lan nga ëpp looy gént. maanaam de. man de xanaa li ñëw ci man te du ma ko gis sax bëriwul ma sëñ bi waxee dëgg rek. lay wan waaw. waaw man ma kay ma xëy teg sama bët. Mm-hmm. moo xam sama njaboot la moo xam ci sama liggéey sax. Mm-hmm. su ci waree am gàllankoor suba. Mm-hmm. léeg-léeg moom damay leer naññ bu may bala maa def. loolu moom day faral di am dëgg yàlla. dëgg la. day faral moom. lu lu ne mel bu la bu bu la bu la dalee yan sarax ngay génne. man nag mburu moo ci ëpp léegi. Mhm. sama sarax moom léegi mburoo ci ëpp wala laax. Mhm. ñaar yi daal moo ëpp lu may def moom. déggal nañ la ko waaye dañ la ko wan ci gént de. ah. ma déggal nañ la ko waaye dañ la ko wan ci gént li la ko wan ci gént moo ëpp. moo ëpp kay moom. moom moo <laughs> baax na de baax na yooyu moom. Mhm. su neexee mën nga ko téye carrément bañ a war sarax yi. mburu wala wala laax boobu. léegi itam soo mënee nga lewetal boo dee ba nga xam ne ni jëkk nga ko nga lewetal moo xam ginaar la wala béy loo ci am baax na su boobaa incha allah dana tax yàlla gën a dolli euh, bunt yi baax a baax mu gën a mu gën a taw feexee ah, alhamdulilah mbir yi nag xam naa ne am na ci lool ci maam yi la ndax yow moom borom nga mais rawaxaan bu baax nga yor baax nga xam na nag euh, am nga li ñuy wax àndaale mais àndaale bi rawaxaan bi da koo ëpp doole sëñ bi da ngay toll boo xam ne doo bëgg wax ak kenn loolu dëgg la de. du nekk am mer nii waaye da ngay bëgg moom sa bopp nit. wéet waaw wéet. wéet daal mooy sama bëgg-bëgg lool moom. waaw. moom daal mbedd mi mën naa caa nekk man dong te du ma ko yëg. wallaahi. loolu moom sama mbir waaye nag boo fa nekkee fi mu toll nii jëmmi ji fi mu nekk ak xel ma fa mu nekk de am na wuute de. Hmm. waaw day wuute waaw. day wuute trop sax. day wuute lool kay moom. loolu dalay lay wan ne kon wéetaay mooy mooy mooy gën ci yow ndax da lay augmente maanaam da te itam dañuy gis ne wéetaay bi nga wéet sax dalay doole xam-xam yow. waaw waaw wér na. dalay xam sa sa xalaat da ci gën a màcc yu bëri yoo xam ne nii ci wéetaay bi ci nga koy amee yow. wallaahi waaw yàlla daal am na lu mu la defal moom. alhamdulilah li mu la desee nag mooy xam-xam bi nga xam ne am nga ko nan ngay def ba mën koy exploité. loolu moo loolu rek loolu mën naa ne moo des. doonte yaa ngi ci yoon waaye da ngay dem ba ci biir projet yi xaw a am ay kii lool ay li ñu naan ay waaw loolu am na waaw sëriñ mbaam de boo ko mënoon am. Mhm. boo ko mënoon am de xam naa nga yar ko wala nga jox ko la ko yoral. Mhm. dana wàññi li yenn yi. alhamdulilah waaw te itam bu la neexee nga war ko sax mu dox juróom ñaari jéego. Mhm. loola sa boobaa cat lay dindi keneen ku ñuy dégg te bu ko neexee mën na koo def. waaye yow si jëm moom fexeel ba am mbaam boo ko mënee am nga war ku la ko yaral. incha allah lenn ci gàllankoor yi nga xam ne mi ngi ñëw jógee ci noon yi. lii noonu rab lay doon lii noonu doomu aadama lay doon su boobaa li ci ëpp mën naa ne du ak seeti incha allah rabbi yàlla mën na ko uh, saafara bu baax. alhamdulilah jërëjëf sëñ Modou waaw. day ñu day ñu fasaa nag borom baax nga. waaw yàlla baax na yal yàlla doole jàppale bu baax rek. allahumma amiin xam naa rawaxaane daal yoon yi lay wan moom. boo siy jaar dana gën a taw féexe. waaw rawaxaane yoon yi yoon yi lay wan. waaw parce que dalay wan dara waaye léeg-léeg da nga koy xaw a doy dal. waaw loolu moom wér naa lii yàgg naa ko gis waaw ah, léeg fàtte ko sax nag. dalay fiiree ndax dalay wan dara nga war koy def ëllëg mu wanaan la ko. Mhm. nga war ko def doo ko def. boo la ko wanaatee dala koy fàttiloo. waaw loolu lay doon waaye du du dara ah, waaw waaye mburu mi moom ak ak laax bi fonk ko. waaw te bas ma de nga gën koo téyewaat. baax na allahu rabbi waaw. baax na boo bëggee nag mu gën a mucc say say noonu. wax sama wa taarix bind ko nga ubbi miim yi. nga dugal ci sutur. su la neexee nga def ko ndomb bu la neexee nga def ko téere loxo loolu ci neex def. baax na dinaa ko def xumal la nga takk ko rek am ñaar fan ñetti fan tekki sànni fee de. Eh, dinaa yàlla. <laughs> incha allah tabariya daal bi moom ñett juróom-ñaar lay doon. waa juróom baax na waaw. baarakallah ñetti xasee laa yu bokkul ñett. baax na waaw. baarakallah. baax na jërëjëf. jërëjëf sukran jërëjëf euh, euh, sëñ Modou Ba moom ñu ngi koy jaajëfal moom tamit. Mhm. di wax ne mën ngeen def nii euh, sëñ Modou Ba képp koo xamante ni rek bëgg nga àddu xam naa ne waxtu yi moom jot na waaye dañuy daal di woy di jël nit ñi rek mënul ñàkk. asalaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. Aydara Mbeng la daa ko Mbeng. Aydara Mbeng. Mbeng sëñ Aydara Mbeng moo bëgg ko ko seetal Seydina mm-hmm. mm-hmm. ay dara Mbeng ay dara Mbeng Mbeng waaw mm-hmm. Mbeng uh, vingt-deux deux cent euh, quinze deux cent quinze barakalaa jiitu sëñ bi rek mu ne wàllum tabixa bi mi ngi nekk ndox biddiw bi mi ngi tudd mustari moom bisub alxames la moome alxames bi day xëy génn 7 heures dugg génn 14 heures dugg 15 heures génnaat 21 heures dugg 22 heures. waaye bu nekk aljuma ji day def changement maanaam aljuma ji day génn 11 heures dugg midi génnaat 18 heures dugg 19 heures. waaw ay dara alhamdulilah ndox de xam naa li nga koy génte bëri na kilifa yi itam ka saak li nga koy génte bëri na. waaw ndox mi nag gërut tiit ndox mi moom xéewal la. ndox ndox mi nga gént. waaw jëru ragal de macha allah baax na xéewal la. waaw xéewal la ak yokkute la zaahiran wa baatinan waaw soo soo soo soo mën nag nga koy fonk lu mel ni saraxu soow di ko génne incha allah dana gën a jàppandali mbir yi bu baax a baax ndax danga nekk nit koo xam ne ni tuur bi fa mu àgg jëmm ji ci boppam àgg gu fa <laughs> waaw jëmm ji àgg tur ci boppam àggu fa bëri waa ne nit koo xam ne day bëgg jëflante yow bu déggee tur wi léeg-léeg bu demee ba gis jëmm ji sax day xel yaar na est-ce que moom la war a du moom waaw lim day wér na <laughs> lim lay daal du benn du jaar bëri na. loolu lépp nag dalay joxaat ab soññe pour nga gën a fagaru ndax ëllëgay tax. waaw gën a gën a fagaruwaat baax ndax ëllëgay tax. waaw waaw. sëriñ bi nga baal ma waaye léegi-léegi da am projet yoo xam ne da ngay dem bu war koo liggéey nga mel ne dañoo téye sa loxo. waaw waaw am projet yoo xam ne nii. waaw da ngay da nga koy war a koo liggéey nga mel ne téye sa loxo maanaam la la koy bàyyi loolu la lay fësaloo rendez doo xamante Euh, mu mel ni. Euh, moo tax ay dara. Mhm. dafa dafa dafa rëcc. Mhm. ba tey mën nañ jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah bala ñuy daal di yëkkati jataay bi. Euh, képp koo xamante ni rek yëglu nga mën nañ la jël ci 88 628 19 05. 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 81 08 wala ngeen jaar ci 88 628 19 05 xam naa ne dañuy daal di yëkkati jotaay bi rek boo tax képp koo xamante ni rek jamono ji yaa ngi ñuy bàyyi xel seen émission jotaayu xam-xam dañ leen daal di mayaat euh, juróomi minute rek euh, tombeek euh, waxtu une heure yi di jot bu ko defee ñu daal di jël leen ñu daal di yëkkati li nga xamante ne moo di jotaay bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. gi ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo baa yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. tur bi nan la ak fooy wootee. maam seex Diop. maam Cheikh Diop. waaw. Ah. waaw mu mel ni ah, maam seex Diop ah, dafa rëcc ba tey maam seex mën nga jaaraat ci 88 628 19 05 88 628 19 05 walla nga jaar ci. 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek euh, maam Cheikh boo jaaree ci 88 628 81 08 wala nga jaar ci 88 628 19 05 bu ko defee incha allah euh, bala ñuy daal di yëkkati jataay bi euh, ñu daal di lay jël. Euh, xoolal la li nga xamante ni moom nga soxla bu ko defee rek seydinaa xoolal la ko incha allah ñu daal di yëkkati jotaay bi kon képp koo xamante ni rek jamono ji yaa ngi ñuy bàyyi xel euh, mën ngeen njëkkanteeg waxtu wi ndax euh, jot na daanaka mën nañ ne ñeenti minutes rek moo ci des

danañ la jël euh, say dina seetal la wala mu firil la say gént wala yow mi nga xamante da nga bëgg ku la defal ay ñaan euh, ci sa bërëbu liggéeyukaay euh, wala sa biir kër yow mi nga xam danga bëgg ñu xoolal la say rawaan yow mi nga xam da ngay seetlu ndax tukki bi baax na wala baaxul wala at jamono ji nga ko war a def war nga ko cee def wala déet wala yan muslaay nga war a utiliser pour mën a dem wala yow mi nga xamante ni jamono ji yaa ngi bëgg xam sa biddiw yooyu yëpp rek boo wootee ci 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 81 08 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah ñu daal di leen di euh, defal li nga xam moom ngeen daal di bëgg bala ñuy yëkkate jotaay bi ndax nee naa leen euh, jamono ji ñaari minutes rek moo ci des te ñaari minutes yooyu képp ku ci dugg rek incha allah euh, yow la ñuy daal di tëjee li nga xam moo di émission bi ba tax rek dañuy daal di bàyyi Seydina mm. mu daal di joxe dog bi nga xamante moom la doon joxe muy ay léem léemaay euh, bu ko defee rek Seydina léemaay ban nga mën a jox gars bu ko defee ñu daal di yëkkati jotaay bi loolu rek képp ku ñu daal lay jëlaale bala ñu daal di yëkkati jotaay bi. Euh, macha allah jërëjëf xam naa bi ñuy euh, joxe rek ba léegi day dellu ci lu jëm ci wàllum nerf sciatique. Mhm. nerf sciatique bari na ñoo xam ne ni ma leen di daal soo boobaa moom utal xasum yiir ak ren sumpa di ko naan suba bëccëg ngoon. comme dañoo nekk ci jamonoy koor nag lay def bu dogee ba pare ak bu guddee comme heure bi ner rek mu jëfandikoo ko ak bu demee ba waxtu fajar incha allah bi nerf sciatique kon loolu baax na ci. su fekkee ne ki nga xam ne dafa am bët yuy lëndëm bët yuy lëndëm su bëggee mu leer euh, wutal xobe xuril xaal ko di ko suuroo ñetti fan incha allah rabbi yàlla saabara subhanahu wa taala dana ci def tawféex ñetti fan la ko suuroo bu ëpp ñetti fan nag. Mm-hmm. luñ xiir xiir itam na fexe ba ñetti fan bu matee rek mu bàyyi ko. la ca nekkoon dana génn donte ñetti fan lépp dañu ba seet itam waaye balañ ci àgg daal ñort naa ne moom lépp loo xam ne ay lëndëm lëndëm la ci yi yàlla saabana sa wataatu na ko saafara mm-hmm. bu dee lu jëm ci wàllum yokk nguura wutal la reen ni tabanaane wala wutal reen mbant mbantmaari sax mooy gën ak reen ni euh, tabanaane ak reen ni ci xat ak reen yi euh, li ñuy wax dàmbal benn garab la boo xam ne dàmbal lañ koy wax nga wut mm-hmm. ren bi wala nga wut doom bi fekkee nag da nga koy composé ak yii moom da ngay wut ren bi bu fekkee nag composé ko su boobaa doom ba kese ngay wut mm, xam naa boobu beneen yoon sax boo xam ne nii ndax su ma duggee ci doom bi dugg ci xas mi dana dana dana jaxas ñenn ñi. Mhm. waaye daal bu dee ren bi moom moom koy boole baxal ko di ko daal suba ak ngoon incha allah yàlla saa borom subhaanahu wa taala dana la defal kooku tawféex. 88 628 19 05. asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah man tur bi la ak fooy woote. maam Cheikh Diop. maam Cheikh euh, moo bëggoon ko seetal Seydina. Mhm. maam Cheikh Diop. maam Cheikh Diop maam Cheikh. maam Cheikh mim 40 alif benn mim 40 81 1610 1610 plus 81 barakalaa sëñ maam Cheikh la jublu sa mbir rek mu ni wàllum tabixa bi mi ngi nekk. maayu mooy am ndox ndox moo nekk tabixa bi waaye itam sëñ maam Cheikh biddiw ba ma nga tudd mariix moom bisub talaata la moome alhamdulilah talaata kon moo la gën a jubu ci bis yi lépp loo xam ne yaa ngi koy def benn muy tukki wala muy tuxu wala muy sanc barab wala lu mën doon rek boo tànnee talaata ji yàlla mën a na ci tawféex mën na la ci def itam lu koy njort incha allah rabbi euh, da lay wax itam ba léegi bu nekkee bisub àllarba biddiw bi day am sa changement ndax day gi xëy génn 11 heures dugg midi génnaat 18 heures dugg 19 heures waaye sëñ maam Cheikh sa biddiw bi nga xam ne rek moo tudd Mariix suba ci aljuma ji moom xam naa dana xaw a dana xaw a naaje tuuti la waral mu xaw a mooy fajar la war a génnaat 5 heures 5 fii fii fajar moom benn la fi génn mooy 5 heures bu génnee 5 heures mi ngi dugg 6 heures waaye bu demee. Euh, mu mel ni euh, maam Cheikh rëcc na euh, xam naa nag maam Cheikh moom tànti na ñaari yoon. Mhm. rëcc waaye noonu la. xëy na loolu la ko suñu borom bëggee ba tey xëy rek euh, bu mënee àdduwaat rek. Oh. Euh, balay Seydina di yeggale foofu mu yëkkati woon ndax xam naa ne euh, mu ngi ko doon daaneel. Hmm. maam Cheikh boo jaaraatee ci 88 628 19 05 wala nga jaar ci 88 628 81 08. 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 bu ko defee incha allah balay Seydina di jeexal rek ñu daal di lay jël bu dul loolu rek bu Seydina yëkkatee. xam naa nag euh, kon da ngeen daal di xaar ba ci fajar gi incha allah mm-hmm. euh, aju Seydina foofu nga nekkoon euh, daal di fay tëj bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi mm-hmm. xanaa di wax rek jigéen joo xam ne ni day faral di nef danañ ci joxe ab tegtal incha allah waxuma nag jigéen juy taxawaalu bañ am doom pour mu leer de waxuma itam jigéen ju bañ a am doom jigéen ju mëntu am doom ak jigéen juy neef ak jigéen ju bañ am doom dañoo niroo waaye bokkuñ li ma leen jox dama koy joxe te yàlla tax moo tax dama koy leeral te yàlla tax kon damay bañ ka nekk ci mbedd ma rek euh, nga xam ne moom fu ko neex yendu fu ko neex fanaan dégg ma joxe li mu xaaral ma def ko man jigéen ji nef la wax jigéen ji nef wutal yaxu baaxoñ ban baaxoñ baaxoñ bi nga xam ne ne baat bi dafa weex moom ngay wut nga ëw ko def ko ma takk ko incha bi li feeg yaa ngi moom daal jàppal ne nef moom pare nga ca hmm. loolu moom incha allah ko bàyyi xel xam naa mënuma jeexal mukk te joxe mu lu jëm ci wàllum ubbeeku ubbeeku ci wàllu wërsëg nag ngay def da ngay bind alam nasara kenn ku ci ne ci yéen mën naa jël li ñuy jox soo xamee heure bu leer mu tànn bind ko ci boo ko xamul itam mu tànn bis bu leer na bis bu leer bu ñu ko waxee mooy bis boo xam ne nekkul lim bu fatt waaw ubbeeku ci wàllu wërsëg bindal alam nasara soo bindee alam nasara ba àgga nga teg ci ayatu kursi bu nekk nga bind ko kun muy 70 door a bindaat neen teg ci soo bindee loolu ba pare nga teg ci yaali difu 129 nga raxasee ko juróom ñaari ndoxi teen yu bokkul juróom ñaari ndoxi teen yu bokkul sangoo ko juróom ñaari fan sa allah bi lii day day dindi cat day dindi taq taq yaram te nit ki saa yu taq taq yaram yi ubbeeku oh, daje ci moom rek ak ubbeeku daal di tabbi ci moom incha allah bi kon na ko bàyyi xel waaye juróom-ñaari fan yi nag na xam ne day tegaloo amul naan aljuma jéeg déedéet ndax kii amul sunguf boo xam ne moom koy composé moo tax juróom-ñaari fan yi day tegaloo kon xam naa incha allah foofu la ñuy tegal suñu baaraam rek euh, bu fekkee keneen ñëwut ñu tàggatoo ba fajar bu soobee suñu borom euh, ndegam sob na yàlla suñu suñu borom subhanahu wa xam naa di santaat ñu ak gërëm mboolem ko doon bàyyi xel jotaay bi ci biir mu wala bitim réew ñu nekkoon ci youtube ak ñu nekkoon facebook ñu nekkoon tiktok ñu nekkoon ci yeneen jumtukaay yi te leen rajo wala Sénégal rajo ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di ñaan sama fekk si jàmm xam am na si moom la leen métti mooy fañ nekk dañu bëgg a yëkkati woote waaye léeg-léeg kër xaw a jafe ñooñu itam ñu ngi leen di massoo bu baax a baax incha allah di wax ne yeneen jotaay da ngeen mën di ànd ñun nuyuwaat bu baax sama waa kër euh, soxna Fatou Gueye Sall maa ngi koy di ko moo ak soxna Jaara ak tout tànk yi nga xam ñoo nekk ci kër ga di nuyuwaat bu baax ak siyaare soxna Seyna bu Toob ak waa këram ñoom soxna Yaama Kan waaye ñoom soxna Leena Toob Baye Dame Sourang ak sëñ fallu ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax Baye Malick Diouf foofu ci diine ñu ngi koy di ko siyaare sëñ Assane Lo moo ak sëñ Basiru Lo ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare sëñ Moxtaar Thiaw ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaare waaye soxna Awa Saw ak waa këram ñoo ngi leen di beneen nuyu bu baax a baax di leen di leen siyaare waaye di ñaanal bu baax a baax suñu sang ba sëriñ ak Mbacke ibnu sëriñ Saliou yàlla sa baram subhanahu wa taala yàggal ko fi lool te gën ko wéral gën a dëgëral ab taxawaay bu baax rawat na ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ndeysaan xam naa suba bu soobee suñu borom ba wal média dana ci am taxawaay bu am solo boo xam ne ni dana ko def muy ubbiteeg jumaa nga xam ne nii ku tedd gi Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Saliou mu koy def muy jumaa ji nga xam ne euh, moo moo moo nekk fii rek incha allahu rabbi yi loolu moom bu soobee suñu borom euh, Baol Médias dana ci taxaw damaa xamul lësee wala day ànd ak waa équipe am daal naka la waaye incha allah euh, yàlla baax na kon santaan ñëpp gërëm ñëpp ku tedd ki nag ñu ngi sàkkuwaat ci yow ay ñaan baax a baax sëñ Ousseynou Amar ko tedd ki ne ko daal ñu ngi sàkkuwaat ci moom ñaan mu doole ñaanal bu baax a baax waa Baol Médias sëñ Xaarim sëñ Abo it ñëpp maa ngi leen ko yóbbante incha allah rabbi jërë ngeen jëf kon xam naa sëñ Fallou fàttali numéro bi 77 861 53 25 waaw 77 861 53 25 77 861 53 25 jërë ngeen jëf sant leen gërëm leen jaajëfalaat baax a baax Cheikh Mamadou Fadal bi nga xam ne nii moo fee gëru ñu jotaay bi. jërëjëf euh, Seydina ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di am mbégte euh, di ànd ak yow ci seen émission jotaayu xam-xam bi saa su nekk rek. comme niñ koy waxee bokki auditeur auditrice wu Baol Média Euh, euh, seen émission jotaayu xam-xam la woon ngeen ko doon am ci 88 point 5 ci rajo Baol Média FM nekk fii ci Mbacke tableau bi xàll ba jëm Touba euh, ngeen koy am saa su nekk rek ay programme yu mucc ayib ci koor gi waaye itam bu jénnee koor gi saa su nekk rek nee naa la Baol Média li yitte mooy yitte askan bi ba tax ci lay dox saa su nekk kon yow mi nga xamante ni yaa ngi ñuy doog di dab ci seen fréquence bi di 88 point foofu la jarul ngay pousse onde bi bàyyi ko fi xam naa bu ñu yëkkatee jotaay bi rek incha allah programme Baol Média daal di continuer waaye itam bu fajaree incha allah kii di Seydina Ousmane dana fi ñëwaat àndaat ak yéen seen émission yóbbulu suba si mu nekk émission bu am solo itam saa su nekk rek di sàkku auditeur auditrice Baol Média di wéy di suivre sunu ay programme ci waaye itam di ko suivre ci sunu ay plateforme muy Facebook YouTube Twitter Instagram waaye itam sunu application bi di sunu FM kon dañ daal leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci jër euh, jërë ngeen jëf.